à vouloir partir. Alors, il y a peut-être cette période qui est assez, euh, je dirais, propice pour le voyage, puisque euh, quand on ira un peu vers le mois de décembre, vers janvier, euh, sur le plan météorologique, euh, peut-être la situation sera, moins sera plus compliquée en mer, puisqu'il y aura euh, des houles, euh, il y aura une mer assez agitée. D'habitude, durant cette période, la mer est assez compliquée. Alors les gens se disent, mais autant partir tout de suite, puisqu'on a des possibilités d'y aller maintenant. Certains ont pris Euh, sur eux de euh, vendre leurs biens pour se retrouver dans euh, une dans un avion en destination le Nicaragua avec mm-hmm. plusieurs escales. C'est quand même 3 millions 500 jusqu'à 3 millions 600 euh, qu'on va débourser juste pour l'avion, pour faire plusieurs escales. Royal Air Maroc, euh, on va au Maroc, on passe par euh, d'autres pays de l'Amérique du Sud avant de se retrouver au Nicaragua, avec une possibilité de ne même pas passer la frontière avec eux. euh, le Mexique et le, le, les États-Unis. Mm -hmm. Mais il n'empêche qu'on tente toujours. Alors, euh, il faudrait qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse dire la vérité aux Sénégalais, qu'on puisse dire la vérité à ces... que les gens qui sont à l'extérieur puissent aussi dire la vérité aux Sénégalais en leur disant attention, euh, c'est vrai, euh, on est bien pour le moment, ou bien euh, on a quand même bourlingué avant d'arriver à, à cet endroit où nous sommes. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle C'est une interrogation qu'on l'on se pose, puisque des morts, il y en a. Et euh, malheureusement, en, comme disait euh, Alamine, en un mot, mais comme en mille mots, c'est une situation dramatique. Mm. Euh, Faudrait-il pas aussi, Ibrahim, peut-être faciliter l'octroi des, des, des, visas Ça peut être des, une solution. Oui. Euh, alors, il faut quand même euh, dire que des Sénégalais, Euh, régulièrement établis au Sénégal, qui vivent au Sénégal, qui sont nés sénégalais, qui ont grandi au Sénégal. Il y a certains qui ont des visas pour se rendre ailleurs, pour se rendre, mais plus pour, euh, par exemple, il y a des visas euh, d'étrangers, peut-être au Canada. Il y a les green cards. Moi, je connais des gens, euh, des, des, proches de ma famille ou des membres de, la, de ma famille euh, qui ont depuis euh, belle lurette, qui sont établis aux USA et tout simplement pas, pas, pas en passant par le Nicaragua ou quelconque autre euh, chemin euh, vers l'immigration irrégulière, mais on déposait pour avoir euh, ce qu'on appelle les green cards, euh, pour avoir un séjour de 5 ans ou un visa de 5 ans. Euh, c'est un peu même une loterie selon certains, où on va à l'ambassade euh, moi, avec tous les documents nécessaires, à la mine qui a les mêmes documents que moi, on me laisse passer, on ne laisse pas passer à la mine. Quelquefois, c'est euh, plus un jeu de loterie pour euh, Euh, les ambassades. Alors, euh, ce qu'il faut là, à ce moment, c'est au gouvernement de réagir en demandant, par exemple, écoutez, nous sommes en régime euh, nous sommes en pays vous vous venez vers nous euh, et euh, sans quelquefois même demander le visa il suffit juste qu'on puisse voir un passeport français italien espagnol ou de l'espace Schengen ou qu'on voit un passeport américain et puis bon euh, bienvenue chez nous euh, vous avez nos portes ouvertes etc pourquoi ne pas également permettre à nos jeunes Sénégalais de se rendre dans ces différents pays même s'il s'agit de signer un protocole ou de signer en tout cas une, euh, un accord qui puisse permettre à un nombre déterminé de Sénégalais de se rendre dans ces différents pays, de tenter l'aventure, comme on dit, peut-être ils seront dans des champs, etc. Il y a eu des programmes avec, euh, par exemple, le régime de Maître Ablaïwad, où des Sénégalais euh, ont été sélectionnés pour se rendre dans des pays, euh, notamment de l'Europe. Mais c'était pourquoi Pour cultiver le champ pour certains, euh, pour aller peut-être euh, acquérir de l'expérience dans les plantations, euh, dans les vignerons, dans les plantations euh, d'oranges ou, ou, je ne sais quoi. Mais qui, au bout d'un certain moment, sont presque obligés de revenir puisque ce qu'ils gagnent dans ces plantations, on, pour certains, ils se disent que c'est bien. On, on, a au moins ce un fonds, on peut démarrer quelque chose. Pour d'autres, ils se disent, mais écoutez, autant rester chez nous, euh, puisque quand il s'agit d'expérience euh, agricole, on a les meilleurs agriculteurs au Sénégal, on a beaucoup d'expérience sur le plan agricole au Sénégal, mais euh, on a peut-être des, des, difficultés pour avoir des champs, euh, pour avoir nos propres champs en tant que jeunes. C'est pas seulement dans le monde de l'agriculture. Quand je disais tout à l'heure euh, ces vendeurs à la sauvette ou euh, ces gens qui ont, euh, on l'a dit, un taximan qui a vendu son, euh, son véhicule pour acheter un billet pour se rendre euh, au Nicaragua, pourquoi est-ce qu'il a vendu son son son taxi parce que peut-être à côté il se dit que ce que je gagnais quand j'étais taximan euh, quand il n'y avait que des taxis à qui l'on permettait d'avoir des clients en plus des bus etc je n'avais pas de problème mais maintenant à côté il n'y a pas seulement mon taxi il y a des clandos il y a des tchak-tchak il y a ceci il y a cela ce que je gagnais par jour euh, si c'était vingt-cinq mille francs maintenant je me retrouve avec cinq mille francs ou avec dix mille francs euh, je pourrais pas réellement m'en sortir et peut-être joindre les deux bouts euh, finalement je suis obligé de tirer euh, le diable par la queue si euh, je vois le diable alors beaucoup de tentatives de réponse mais il y a beaucoup de questions et surtout il y a une question qu'est-ce qui se passe en fait un sujet politique bien sûr Thial Alioum à la une des journaux ce matin euh, par rapport donc justement euh, aux deux poids deux mesures dirait-on Birahim Touré je pense qu'il y a une semaine on alertait déjà ou bien en tout cas à, propos justement de vos propos, euh, je m'entendais alerter justement par rapport à la situation politique du Sénégal. Beaucoup de journaux en ont parlé ce matin par rapport justement à cette campagne de collecte de parrainage, mais aussi euh, à certains tournées économiques mhm. selon, selon certains, mais aussi politiques selon d'autres. Euh, cette fois donc euh, des candidats de l'opposition euh, qui sont bloqués, des candidats de l'opposition qui sont empêchés tout cas de, de, de, d'aller à la rencontre des citoyens sénégalais au moment que d'autres candidats sont en train de faire des, relations avec la population sénégalaise mhm. et selon le journal Vox Populi ce matin, c'est justement un feu rouge qui a été donné pour l'opposition, mais feu vert pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Et c'est toujours l'administration qui est au banc des accusés. Quand je dis l'administration, ce sont les préfets, gouverneurs, sous-préfets qui demandent à la gendarmerie ou à la police de bloquer un cortège d'un candidat à la candidature qui s'en va euh, vers une localité pour le parrainage. Euh, ce sont euh, des gouverneurs, préfets ou sous-préfets qui décident de qui passe, qui ne passe pas. Au même moment, alors faisons un peu le... Regardons les journaux. et ce qui s'est passé durant le week-end. On vous dit par exemple Abdou Karim Sall, qui est euh, qui organise un meeting euh, qui n'est pas interdit, il fait même foule. Euh, on voit un Abdou Karim Fofana qui tient également euh, un rendez-vous politique. On voit euh, d'autres toujours dans la mouvance présidentielle je pense. oui euh, on on, on voit qui le effectivement Mamoudou Lamine Massaly à Thiès on voit qu'il y a encore euh, euh pratiquement mm-hmm. euh, presque tous ces euh, donc euh, AKS Abdou Karim Sall qui rassure Amadou Ba méga meeting de confirmation à Mbao. Ah, Euh, Abdou Karim Fofana euh, au lancement des parrainages de la coalition Benno Bokk Yakaar euh, avec les propos qui lui qui lui sont prêtés Amadou Ba premier ministre mais qui est accueilli par des hommes politiques euh, qui font également foule. On prendra prétexte de son rôle de Premier ministre oui, en disant qu'il s'agit d'une tournée économique, mais on sait que au-delà de la tournée économique, il y a une forte dose de politique. Alors tous ces gens du pouvoir ou du régime ont le droit d'aller où ils veulent, de faire ce qu'ils veulent, de mobiliser par l'ombre d'un gendarme ou d'un policier, ou s'il y a des gendarmes et des policiers, c'est pour les sécuriser. Et au même moment, paradoxe, euh, El Hadj Malick Gakou veut se rendre dans une... Il est candidat à la candidature. Mm. On lui interdit. Khalifa Babacar Sall, il est candidat à la mm, candidature. On lui interdit. Récemment, c'était Bougane Gueye Dany, candidat à la candidature. On lui interdit. Mais euh, pourquoi ces deux, deux, poids, deux mesures Pourquoi autoriser aux uns, interdire aux autres Alors, si on se limite au code électoral, mmh. on dira que non, on n'est pas en campagne électorale, et la campagne électorale euh, s'organise selon, il y a des règles du jeu, où on nous dit, par exemple, il y a une période de pré-campagne, il y a la campagne à proprement dite, et euh, durant cette campagne, il y a ce qu'on peut faire ce qu'on ne peut pas faire. Dans la période de pré-campagne, on dira qu'il y a un nombre de jours euh, durant lesquels personne ne peut battre campagne. D'accord. Mais il y a un, une nouvelle donne, je le rappelais, qui doit être pris en compte dans le code électoral, s'il le faut modifier le code électoral, c'est le parrainage. Puisqu'il y a cette nouvelle donne qu'on appelle le parrainage, est-ce qu'on doit interdire à des Sénégalais, candidats à la candidature, d'aller à la recherche de parrains c'est même illogique que la direction générale des élections puisse remettre une fiche de parrainage à Tcharaloum et au même moment l'administration dont la direction générale des élections fait partie l'administration de manière générale dise à un tel vous pouvez pas Tchala non on vous a remis une fiche mais gardez cette fiche là chez vous euh, en attendant qu'on ouvre une campagne c'est même pas logique c'est vous dire allez-y et en même temps non arrêtez-vous quelle est la logique il y a cette nouvelle donne qu'on appelle le parrainage, il faut nécessairement que les acteurs politiques puissent s'asseoir autour d'une table et discuter autour du, des modalités concernant la collecte, par exemple, de parrains. Euh, c'est vrai, on nous dit un tel à 2000 représentants, euh, 3000 euh, points focaux dans les différentes régions pour euh, euh s'activer euh, dans, dans, dans, le parrainage. Mais ce qui est valable pour Amrouba, Euh, ou ce qui est valable pour Khalifa Kassal ou Elas Manikaku ou Bougan Gaydani ou, euh, ou, ou, toute autre personne jusqu'à Anta Kangom euh, très récemment, doit être valable également pour Amadouba et toutes ces personnes-là qui euh, gravitent autour de Amadouba sous prétexte que ce sont des ministres. On a vu cette salle, je pense, aux côtés de euh, je ne sais plus quel leader aussi, mm -hmm. politique, ministre aussi, Abdou Karim Fofana, le ministre, mm -hmm. d'autres ministres qui peuvent battre campagne dire à Amadou Ba le candidat voilà on a recueilli tant de parrains on est allé on a mobilisé alors que les autres ne peuvent même pas faire une caravane pour aller quelque part euh, le problème qui va se poser aujourd'hui c'est que euh, les Sénégalais de manière générale euh, n'aiment pas le ce qu'on pourrait appeler euh, comment comment trouver le terme euh, euh, xaw ma làq doom dóor doom comment je sais pas comment comment traduire cela un peu euh, euh, je vais je vais euh, je vais revenir sur ça mais le Sénégal n'aime pas euh, cette sorte de d'impuissance que l'on montre pour d'autres et de toute puissance pour certains pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'administration ne prend pas sur sur elle de dire à tout le monde stoppez tout ce qui est campagne électorale même si c'est pour les parrainages, le temps de voir avec tous les acteurs politiques, autour de la société civile, autour des organisateurs, etc., comment aller vers ce parrainage-là sans léser qui que ce soit. Mais pourquoi léser les uns et euh, laisser les autres partir Aujourd'hui, hein, à Amadouba, la coalition Benoboke Akar qui dit non, il me faut tant de parrains, euh, on le voit dans les journaux, je donne 2000 parrains, euh, j'ai donné 10 000 parrains. alors qu'ils ont même la possibilité de ne même pas aller vers ce parrainage citoyen, mais de rester à l'Assemblée nationale, puisqu'ils ont une majorité, euh, même si euh, étriquée, mais ils ont une majorité qui leur permet d'avoir les parrains des, euh, de l'Assemblée nationale, donc des députés. Ou bien d'aller vers tout simplement les, les maires, présidents de conseil, pour leur demander écoutez parrainez-nous euh, on a juste besoin de je ne sais plus euh, cent et quelques ou cinq cent et quelques pour le, le parrainage pas la, la peine d'aller vers les citoyens pour prendre euh, leur fiche leur carte d'identité ou pièce d'électeur puisqu'après ce qui va se passer ensuite ce sera que euh, ils auront déjà une avance côté parrainage citoyen et les autres qui viendront après mais risquent d'avoir des doublons parce que hein, Alamine va parrainer Amadou Ba en passant peut-être par euh, euh je sais pas euh, Abdou Karim Fofana ou un euh, quelconque autre ministre de la mouvance présidentielle Tchalalum qui viendra peut-être que Alamine va parrainer également Tchalalum mais Amadou Alamine avait déjà parrainé pour Amadou Ba alors beaucoup de doublons ce qui est sûr c'est que quand on ira vers le Conseil constitutionnel, il y aura trop de surprises. Mm -hmm. Ceux qui sont forts politiquement, je veux dire, qui ont des coalitions du genre Euh, Benno Bokk Yaakaar peut-être euh, Yewwi Askan Wi euh, Khalifa Babacar Sall Taxawu Sénégal peuvent rapidement passer ce cap des parrains du parrainage mais ceux qui suivront après auront des difficultés surtout dans ce qu'on appelle les doublons et ça ça va encore poser problème c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut que l'administration sénégalaise excusez de le dire soit un peu plus sérieuse mais surtout euh, qu'il y ait euh, qu'il n'y ait pas un deux poids deux mesures où certains ont le droit et d'autres n'ont pas le droit. Il y, a, il y a aussi la campagne déguisée, on peut le dire ainsi, Ibrahim. C'est ce que fait le Premier ministre. D'ailleurs, hier, Aminata Touré face à la presse a dénoncé cela. Oui, mais c'est le Premier ministre, il n'est pas dans une, on dirait non, tournée économique, une tournée euh, je ne sais quoi, mais c'est une tournée politique. C'est une tournée politique. Euh, euh, qui l'a accueilli à Dagana On dirait non, c'est euh, euh, un leader politique, c'est le maire de la commune, ou mais D'accord, mais Omar Sarr, il était là-bas pas seulement en tant que maire, en tant qu'acteur politique et en tant que euh, l'un des membres de la coalition Benno Bokk Yakaar qui a dit au Premier ministre, écoute, j'ai mobilisé. Est-ce que dans les pancartes des manifestations du Premier ministre, même si c'est une tournée économique, on voit non, merci pour euh, le train express ou merci pour euh, euh l'aéroport ou non, on voit euh, les photos et les euh, les les titres des Euh, des des leaders politiques de la région ou de la de la localité on verra un euh, Dagana derrière Amadou Ba euh, ou Omar Sarr derrière Amadou Ba on verra un, je sais pas Mansour Faye derrière Amadou Ba avec les militants de Mansour Faye qui font mm. le qui qui font foule et qui mobilisent au niveau de Saint-Louis c'est-à-dire que il n'y a pas de tournée économique présentement on parle plus du qu'est-ce qu'il va aller euh, faire euh, dans dans les différentes régions après le nord il ira ailleurs également mm. si c'était le président Macky Sall qui aurait fait cette tournée dite économique on aurait compris que c'était pour voir euh, l'état d'avancement de, de certains travaux euh, les projets qu'il avait euh, demandé qu'on démarre où est-ce qu'ils en sont entre autres et on dira bon écoutez euh, il ne cherche rien si Macky Sall président de la République dans cette tournée dite économique Et avec Amadouba, on dira tout de suite, non, ce n'est plus une tournée économique, c'est une tournée politique où il va dans les régions pour présenter son candidat ou le, candidat de la coalition Bernard Bokayaka. Mais quand c'est Amadouba, Premier ministre, euh, qui est flanqué de plusieurs ministres, au moins une dizaine, plus euh, une dizaine de directeurs généraux, de PCA, de ceci, de cela, tous politiques, mais ce n'est pas pour une tournée dite euh, économique. Non, c'est une tournée politico-économique

U18 vous voyez donc avec le journal Sport Le Peuple qui en a parlé ce matin et fait focus avec donc le Sénégal qui commence sa préparation par un carton plein 4 buts à 0 Les Lionceaux donc ont dominé hier donc l'équipe du Panama en ce qui concerne leur préparation. Et au notre journal, il s'agira du journal Stade qui fait focus ce matin euh, sur le jeune Sénégalais Lamine Camara au niveau de son club FC Metz dans le championnat de la Ligue 1 française. Le Lyon a marqué un but fantastique hier donc après avoir un lob hier Euh, du gardien de l'AS Monaco. Malgré tout, l'équipe donc euh, de euh, Crépin Diata et de Ismail Jacobs Monaco a pris le dessus sur l'FC Metz de Lamine Camara malgré l'ouverture du score du jeune Sénégalais. Toujours dans ce journal, donc Stade qui fait focus encore une fois sur justement le trophée des champions qui a été Euh, qui a été donc euh, remporté par l'équipe de Teungueth FC devant donc euh, Génération Foot, l'actuel champion du, en titre du Sénégal. Teungueth FC donc qui s'est offert ce trophée en l'entame donc de la du championnat 2023-2024 les Rufisquois euh, font donc justement carton plein deux buts à un victoire donc euh, rassurante hier euh, ou bien le en ce début de week-end samedi euh, face à l'équipe de Génération Foot en notre journal pour finir record toujours qui fait focus sur Lamine Camara le jeune Sénégalais note donc parler des Lions qui ont fait vibrer justement les stades européens en ce qui concerne donc ce week après justement également le retour de l'équipe nationale du Sénégal, en tout cas des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal après justement la trêve internationale. Boulaïdia a fait donc un doublé important avec son club Salernitana au niveau donc euh, du championnat euh, d'Italie, d'Italie, euh, la Serie A, pour faire donc en tout cas pour montrer qu'à Loum, mm -hmm. les joueurs sénégalais sont en train de marcher justement sur l'eau, comme on peut le dire, mhm. en ce qui concerne donc les championnats européens, en attendant de voir Euh, la suite des choses d'ici euh, la Coupe d'Afrique 2023. D'accord. Avant de finir, c'est bon, Sunulam. Je n'ai pas Face à face, Régis, si vous avez Sunulam, face à face du samedi, absence d'Ama, les vraies raisons révélées. Voilà. Régis, si vous avez Sunulam. c'est vrai que j'ai pas. vu euh, ce journal ce matin. Euh, je, l'ai pas pris, mais peut-être en version Wolof. mais euh, justement, en ce qui face-à-face entre Emerson Euh, entre euh, je, je, euh, Ama, était Ama Balde et Modulo. justement, je pense que depuis ce week-end, les férus de l'arène sénégalaise sont en train de juste parler, surtout avec l'absence notée d'Ama Baldé. Jusque-là, pour l'instant, je ne je, je vois pas ce qui le justifie. Mm -hmm. euh, mais je pense que euh, on verra ce qui va se passer. On verra, Inch'Allah. En tout cas, le CNG a prévu des sanctions, des sanctions lourdes d'ailleurs même, mm -hmm. pouvant aller jusqu'à six mois de sanctions. En fait, Euh, on verra ce qui va se ah passer. je pense que c'est Luc Nicolai. Luc Nicolai bien sûr aussi. voilà il y en aura ce qui est sûr. <laughs> Inch'Allah merci à toi Lamine Senghor c'était on enchaîne tout de suite avec le journal. Thank you. cette fois-ci avant donc euh, de parler toute autre chose avec euh, la, la position justement de l'ancienne première ministre candidat à la candidature de la coalition Benno Bokk Yakaar Mimi Touré euh, qui s'est prononcé sur la décision du juge Sabassi Faye ordonnant la réintégration d'Ousmane Sonko dans le fichier électoral Selon euh, Mimi Touré, cela donc euh, n'est tout autre chose qu'une décision qui a été jetée à la poubelle par la Direction générale des élections, euh, pour dire donc justement Aminata Touré, puisque c'est d'elle qu'il s'agit et d'avis que la DG n'a pas

Euh, prochain. Amadou Ba, justement, euh, ces travailleurs fustigent la démarche du Premier ministre. Amadou Ba qui, selon eux, s'est euh, beaucoup focalisé sur son agenda politique plutôt que de se trouver une solution face à leurs revendications. L'intersyndicale note pour s'en désoler que le Premier ministre semble donner beaucoup d'importance et de priorité à son agenda politique sans se prononcer donc sur leurs affaires. ce qui contribue malheureusement justement donc à une euh, à de d'énormes problèmes et à la en tout cas à exacerber le pourrissement de la situation dans les territoires au grand dam euh, en tout cas des populations lit-on dans leur communiqué. Et nous parlons tout autre chose cette fois-ci. Vous le savez, à Bambilor, depuis ce week en un litige foncier a justement opposé la, les forces de la euh, sécurité donc, du Sénégal et donc la population de Bambilor. Euh, la réaction du maire, voici concernant l'attention du village de Béi à la suite des violentes affrontements entre les populations et les forces de l'ordre des manifestations qui ont euh, éclaté. Donc les populations Euh, qui euh, refusent de céder à leurs terres et réclament justement justice et donc euh, que leurs terres leur soient remises. le maire Ndiagne Diop a condamné l'arrestation de beaucoup de jeunes dans ce village. Il s'est exprimé au micro de Biram Khary Ndao, nous l'écoutons et d'assumer ces compétences-là. Ne suivent pas souvent. Les transferts infranationaux sont très faibles. Donc il fallait travailler avec l'échelon territorial à renforcer les capacités des commissions de fiscalité locale. génétique et surtout euh, euh, la, la, la, la, valeur, la, le cursus euh, donc euh, euh, des journées euh, portes ouvertes qui sont l'occasion pour mettre en exergue l'histoire de Galoya, le modèle Galoya et à travers des panels qu'on va organiser essayer de créer un peu la symbiose entre les éleveurs et euh, les vétérinaires, entre les éleveurs et les banquiers agricoles, entre les éleveurs et les nutritionnistes, euh, et surtout euh, les éleveurs entre eux. Et nous, ça nous donne l'occasion aussi euh, de montrer quand même le modèle euh, de Galéa qui constitue une référence. Euh, ces journées portes ouvertes, ouvertes, sont aussi un prétexte euh, pour euh, exposer nos sujets avec les différentes lignées qui existent ici. C'est aussi un prétexte pour, euh, à travers des toiles, euh, montrer euh, les photos des, des, moutons qui ont marqué Galoya, l'élevage de Galoya et qui ont surtout marqué l'élevage Ladoum du, du, du Sénégal. Et on va créer aussi euh, une plaquette euh, à travers laquelle on va euh, mettre en exergue euh, non seulement euh, l'arbre généalogique de tous ces sujets, mais surtout euh, un texte descriptif qui, met, qui montrera quand même les qualités de ces sujets-là, les qualités génétiques et surtout euh, euh la, la, la, la, valeur, le cursus, euh, donc euh, euh, la, en quelque sorte la production, la descendance de ces sujets qui ont marqué l'élevage du... On s'en excuse de cet élément puisqu'on avait annoncé justement le maire de Bambilor, Ndiagne Diop, mais cette fois-ci on nous a donné l'élément donc d'Abdou Kane, le président de la bergerie Galoya, qui s'est exprimé au micro de euh, Biram Ibrahima Khalid Diémé et qui parlait donc euh, justement de la porte de la journée, porte ou bien des journées euh, portes ouvertes qui ont été organisées donc justement à la bergerie Galoya située à Sicap Mbao qui préparait justement donc une thématique significative pour ces quatre jours à venir, l'importance en encore une fois donc de faire de l'élevage un hub en ce qui concerne donc justement les jeunes sénégalais. Nous parlons cette fois-ci pour venir avec la réaction du maire de Bambilor. Je le disais tout à l'heure, vous le savez, dans ce week-end, il y a eu un conflit entre les habitants Euh, du village de Béhi à Bambilor dans la commune, bien entendu, avec les forces de l'ordre et de sécurité. Le maire s'est exprimé euh, sur ce, à ce propos. Euh, selon lui, il est impératif qu'on puisse donc justement remettre les terres aux ayants droit à la population. Bien entendu, Ndiagne Diop, que je vous propose d'écouter au micro de Biram Kharindaou. pour trouver des mécanismes et des solutions pour régler cette demande sociale. Et surtout, nous ne croyons qu'au président Macky Sall. c'est le président et il sera toujours notre président. Oui, il y a beaucoup de baux dans le secteur, que ça soit du pôle, qui ne répond pas, qui au projet de l'État. Il y a les 100 000 logements. Donc nous, nous sommes fiers que le président Macky puisse réussir ce combat. Donc, mais il y a des baux où des promoteurs sont en train de morceler et de vendre. Mais pas de construire par rapport aux 100 000 logements. Ce que nous avons vu comme 100 avec des logements, il la SICAP sur 75 hectares, il y la Caisse de sécurité sociale qui est euh, aujourd'hui, euh, les premières clés ont été données. Donc voilà ces, ces, ces gens, prenons Sénéguinga qui a 30 hectares, qu'est-ce en faire Morceler et vendre. C'est des ne cherchent qu'à vendre des parcelles. Donc voilà le combat que nous Mais ce n'est pas un combat entre nous et nous, entre nous maires et les populations, ou bien entre nous maires ou entre population et l'État. C'est un combat pour que le CEBO puisse être annulé et qu'on le remet aux populations pour qu'ils habitent. Vous venez d'écouter le maire de la commune de Bambilor qui s'est exprimé à la suite euh, d'affrontements entre les jeunes du village de Mbeyi qui est donc justement manifesté en ce qui concerne donc euh, l'octroi de leurs terres euh, au nommé promoteur soit soit Ibou Seck justement dans cette commune le maire justement condamne fermement l'arrestation des jeunes puisqu'il y en a et demande incessamment à l'état d'annulation immédiate sans délai des baux portes euh, portant justement les titres fonciers 1957 euh, R. Nous parlons tout autre chose cette fois-ci avec la visite du Premier ministre, candidat à la Ba, puisque de lui qu'il s'agit. Le Premier ministre Amadou Ba a annoncé hier qu'un projet de construction d'une route de 3 km serait entrepris des zones de production de la commune de Léona, notamment euh, Potou et Niayem. Vous avez besoin d'engrais de semences, de magasins de stockage justement, mais également d'une bonne route pour non seulement soutenir le secteur de l'horticulture, de l'élevage et de la pêche. Nous pouvons le faire et nous allons butumer ces trois kilomètres dans les prochains mois, ou bien dans les prochains mois donc, a-t-il déclaré Amadou Ba, je rappelle donc, qui était dans le nord du pays pour une tournée dite économique. Nous parlons tout autre chose. Cette fois-ci, en prélude de la fête de Toussaint, les chrétiens procèdent au désherbage euh, de leur cimetière au niveau donc justement euh, de Saint-Lazare après celui de Bel au début du mois. C'est au tour euh, du cimetière de Saint-Lazare d'être nettoyé. Ils sont des centaines d'hommes et de femmes qui se sont déployés dans ces cimetières donc pour justement s'atteler au travail et première donc à l'heure À noter que les fidèles musulmans étaient également présents sur les lieux pour apporter leur soutien à ces jeunes chrétiens. C'est un reportage signé Mariam Sodaniaï et Augustin Ka. Proche de la fête de Toussaint, des journées de nettoyage des cimetières sont organisées. Vous savez, pour la, à chaque année, chaque année, pour la préparation de la fête de Toussaint, alors nous nous déployons pour le désherbage, rendre les cimetières propres afin de faire accéder les fidèles pour euh, une piété, pour les prières qu'ils font, pour le, ceux qui sont à l'au-delà, qui sont au paradis. pour ceci, nous faisons appel à tous les jeunes chrétiens comme musulmans pour venir faire le nettoyage. Pascal Bougar John y participe depuis 10 ans. Depuis que j'ai pris ma retraite, je me suis abonné à ce genre de sacrifice c'est rendre à Dieu ce que je ne pouvais pas faire durant ma vie professionnelle, parce que je suis un ancien banquier. Après ma retraite, je me suis déployé pour cela. C'est une sorte de prière, sorte de, de, de sacerdoce. Une activité noble, car ces lieux sont le dernier devoir de tout le monde. que chacun pense à lui Si tu viens nettoyer pour les autres, tu souhaites aussi que demain, quelqu'un le fasse pour toi. Moi, je vois les choses comme ça. Je me dis, ce que je fais pour ces gens-là, je le fais pour mon futur aussi, parce que demain, je serai comme eux. Et j'aimerais, quand je serai comme eux quelqu'un fasse quelque chose pour moi. Depuis 8 heures ce matin, des jeunes chrétiens, musulmans, travaillent d'arrache-pied pour nettoyer le cimetière de Saint-Lazare de Béthanie. Ceci après avoir déjà nettoyé celui de Bel Air au début du mois. Une activité d'adoration pour ceux qui à ah, ce setal. À toi Mariam Sodo Ndiaye, un reportage qui a été réalisé donc hier, euh, je rappelle, au niveau donc du cimetière Saint-Lazare, les jeunes euh, qui se sont déployés pour euh, le désherbage de de ce cimetière un lieu important. Le président, nous parlons de toute chose cette fois-ci avec l'immigration irrégulière. Nous en parlons d'ailleurs à l'entame de cette présente édition, dirait-on, à l'émission, bien sûr, avec Birahim Touré, le président de l'ONG Horizon Sans Frontières

Euh, Birahim, euh, dirait-on, euh, Boubacar Sey a alerté donc justement à l'État du Sénégal encore une fois pour montrer ce phénomène de l'immigration irrégulière qui continue toujours à faire écho au Sénégal et dans le continent africain. Et nous parlons toute autre chose pour finir avec cette présente édition. Le Forum civil a organisé un atelier de renforcement de capacités sur la fiscalité locale et la mobilisation des ressources. L'objectif est d'accompagner les collectivités territoriales Euh, pour s'asseoir bien sûr une bonne ou bien pour asseoir une bonne politique de mobilisation des ressources et des amener à s'acquitter de leurs obligations fiscales. Le maire de Thiès Est, Ousmane Diagne, magnifie cette initiative qui va leur permettre d'obtenir non seulement euh, des ressources euh, mais aussi donc de finaliser leur projet. Il s'est exprimé toujours, dirait-on, au micro de Mounir bien sûr. Des ressources qui doivent permettre aux communes d'assurer et d'assumer ces compétences-là ne suivent pas souvent. Les transferts infranationaux sont très faibles. Donc il fallait travailler avec l'échelon territorial à renforcer les capacités des commissions de fiscalité locale là où elles existent ou de susciter leur éclosion dans des communes où ils n'existeraient pas. Pour d'une part faciliter le travail des conseils municipaux et surtout de maîtriser les impôts locaux. la maîtrise des impôts locaux, c'est d'avoir connaissance quels sont les types d'impôts qui vont à la, collectivité territoriale. Surtout encourager aussi les collectivités territoriales à aller vers des fonds qui leur sont dédiés, qui existent au niveau du Trésor et qui tardent à être euh, libérés par le, par, par le gouvernement et l'État central. Nous avons énormément d'outils citoyens que le Forum euh, est en train d'utiliser, de faire utiliser par euh, l'échelon territorial, les politiques publiques, accompagner les acteurs qui sont en train d'exécuter les politiques publiques. L'État nous a transféré beaucoup de compétences sans les moyens nécessaires pour pouvoir réaliser les ambitions. Donc nous avons besoin de ressources. Et ces ressources-là, nous ne pouvons que compter sur nous, sur nos administrés, sur la, sur la collectivité. Vous l'avez dit tantôt aussi, les Sénégalais n'ont pas tellement, tellement la culture de payer l'impôt. C'est cet impôt que les mamans payent, de ces impôts que les mamans aux impôts, qui permettent de construire des salles de classe pour leurs enfants. qui permettre de construire des postes de santé où elles sont soignées quand elles tombent malades. Donc il faudrait une campagne de sensibilisation pour que les gens comprennent l'importance de l'impôt. Et nous remercions le Forum civil qui a eu eh, cette euh, belle initiative pour nous faire permettre, nous aussi en tant que maire aussi, de pouvoir nous, nous, nous former. Donc euh, pour que la population puisse, euh, puisse payer l'impôt aux collectivités territoriales, mais en ce moment, retenez encore une fois donc que les agents des collectivités territoriales ont euh, entamé une grève ce lundi, direction vendredi, pour justement donc exiger leurs conditions de travail et donc plus de considérations en ce qui concerne leurs travaux. Merci encore une fois de nous rester fidèles. C'en est tout pour cette édition d'information. La deuxième partie de votre émission, c'est

Tu es au courant de ma nomination? C'est sur leral.net. Yëg nga sama nomination? Déedéet. Ñu ngi ci leral.net. avez tous attendu, Leral TV 100% partout au Sénégal, disponible désormais sur TNT, canal 33. enfin prendre le temps de lire et de s'informer véritablement. Détente, loisirs, l'actualité. ay l'actualité avec les plus belles signatures du Sénégal. ay reportages yu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 8 mu moom jot ba toftal juróom-ñetti simili gërëm leen sant leen itam ci ànd bi ak programme yu Leral TV ak Leral FM ci soo ba tey ñu ngi ànd ak yéen 7 heures noonu itam lañuy def wéy ba 9 heures ñu koy defee euh, suba su ne ci seen matinal euh, c'est tey mu ne altine yamook ñaar fukki fan ak ñett ci weeru octobre ñuy ànd ak yéen euh, ci numéro bu njëkk bu ayu bés bi aca ca maa ngi lay ziar yàlla yàlla nangu ziar Thialalum ma lay daloo ziar di ziare également Alamine Senghor ak mboolem auditeur téléspectateur ak internautes yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp leen ñaanal euh, tàmbalib ayub bésub jàmm ci ñëpp Aïcha Lamine Sa wax noo def. maa ngi sant yàlla bu baax soxna Thialaloum maa ngi lay ziar di delloo ziar euh, Birahim Touré euh, di toftal sama nuyoo ci moom di nuyu ñëpp foo waay mën a nekk góor wala jigéen yoo xamante ni yéen ñuy topp rek jamono jile. salaamaaleykum. ayca Fatou Kiné ci kanam tuuti dina fi teew ci seen euh, rubrique mode astuce et nu mu koy defee euh, suba su ne euh, Lamine Senghor ñu mu bàyyi la nga dox yéen kaay ak li ñu xëyee. mbëkk bi moom la ñu daal di xëyee ni ki tey jile askanu Sénégal ndaw yi ñu ngay wéy di dem wutali Barça wala Barça yéen kaay yu bari moom la ñu daal di xëyee ni ki tey jile ak yéen kaay bi léegi di le quotidien quotidien bu Madiambal Diagne gis ngeen ko daal di wax ne kon li ko dalee ci week-end bi ñu génn rek lu toll ni junni ak ñaari téeméer daal di nay teew foofee ca archipel bu Euh, l'Espagne mu nekk nag loo xamante ne jamono jëlee euh, tax na ñu daal di kon euh, daal di alerter ci li ni mel jàppale ne kon am na pirogue maanaam gaal boo xamante ne daal wàcc na foofee ca amukat mu nekk nag situation boo xamante ne yu bëri moom la ñuy daal di xëy yéenikaay ci tey jëlee gannaaw yéenikaay bi le quotidien moom tamit beneen yéenikaay daal dina ci wax wala laata loolu ñu wax ci Walf Quotidien bi wax ci wàllum politique ak li nga xam moom mooy kon caravane daal di tere ci biir réew bu Sénégal daal di taxawal caravane bu Khalifa Bakar Sall bu taxawu Sénégal bokk ci ñi samp seen dëll ci jongante njiitu atum 2024 Walf Quotidien jàpp ne jamono yooyu nag fekk na ca Ndar géej ci bët gànnaaru réew ngay daal di waajal li nga xamante ne moom mooy jëm ci wàllum caravane wala sax di koy amal kooke di kon idimaanu jawriñ yi di Amadou Ba mu mel ni nag kon jàpp nañu ne am na ku ma am day ak kuma amul ndey ba tey ci yoon yéenekaay bi la di Walf Quotidien ba tey foofee la ñuy daal di desani ak yéenekaay boobu wax nañu ne ci lu jëm ci ndimbal bi nga xamante ne gouvernement bu Sénégal daana ko jox li nga xam moom mooy kon presse maanaam këru taskatu xibaar yi daal dinay kon am ab xàjjaloo ndaxte ci boobu lépp ndimbal Walf Quotidien ci euh, boppam wala euh, yéenekaay wala këru liggéeyukaay bu euh, Walf ci boppam dem na ci loo xamante ne ñoom jàpp nañu ne waroon nañ ci jot waaye ci am na ay yenn site sax yoo xamante ne ñoom ñoo ëpp la ñu jot yéenekaay boobee di maanaam këru liggéeyukaay boobee di Walf jiri daañ ci ñëwaat waaye wax ci beneen ponk ba tey ci wàllum mbëkk mi ak libération moom tamit daal dina ci yëg yàb bi niki tey jile Boubacar Seye njiitalu Horizon sans frontières daal dinay alerté benn gaal boo xamante ne jege woon na fi fileeg ci euh, yarax daal di euh, def tey jile euh, fukki fan ak juróom-ñaar tey jile nag def na ko ba tey kenn xamul ca la mu nekk kenn xamul fa mu nekk ndax dee nañu am déet loolu nag nekk loo xamante ne jamono jile daal na koy alerté ni ki dem moom njiitalu horizon sans frontière jàpp na ne kon am na lu toll ni juróom-ñett fukki doomi aadama yoo xamante ne nekkoon nañu ci boobu lépp gaal ci ñoom nag am na ci ay jigéen waaye tamit ay ndaw bi encore une fois ñuy jëm ci yeneen yéenikaay lu jëm ci mbëkk mi ci biir réew bu Sénégal Euh, malgré wax ji ñuy wax malgré euh, maanaam alerte yu ñuy alerter sensibilisation yi teewul ndaw yaa ngi dem wutali Barça wala Barça. alerte yi sensibilisation yi ci nopp kan la dugg duggul ci seen nopp wala dégg nañ ko mais lijjantiwuñu ko parce que jàpp nañu ni dafa am ñaar yu am mais dafa am entre choisir entre le moins bon et le pire am na ñoo xam dañ jàpp ni fii c'est le pire le moins bon mooy jéem a dem le moins bon mooy euh, taxul ñu baaxul. waaye tane na lu yées li mooy dañ jàpp ni 1000 francs ba ñuy gagné fii ci par jour ñu gagné peut-être 10 000 francs ci cag-cag wala ci euh, lu mën a doon peut-être bu fële bu ñu demee fële dañu am 20 000 francs ba 25 000 francs ñu ne 1000 francs de plus sax jaral na leen ko euh, xam nga kiy dem yëkkati xaalisam dugal ci benn euh, passeur capitaine gaal bi nga jëkkati 500 000 ba 350 000 ba 400 000 ba lu ni mel nga jox ko. nga gis koo xamee ni famille entière je vois le quotidien le jour bés bi. Mm. li mu wax mm-hmm. mooy leen mon frère est parti avec sa femme et ses deux enfants c'est c'est toute une famille c'est quatre personnes mooy moom rakkam wala magam dem ànd ak soxnaam ànd ak ay doomam ñu ne la gaal gi nga xamee ni moom moo réer euh, jóge yi au moins quatre-vingts portés disparus ndax gaal gi juróom-ñett fukki nit a ngi ci woon mm-hmm. ba pare na la plus de la moitié 80 plus de la moitié c'est plus de 40 femmes ñu nekk ci biir boobu légal ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose le problème il est là tout le monde le constate mmh. mais j'ai l'impression que personne n'en parle ce sont les quotidiens qui en parlent le gouvernement bi talu ko moo ngi ci ay tournée économico-politique am Euh, leader politique yëpp sax de manière générale taluñu ko ñu ngi ci seen lijjantiwum parrainage. à part def ay poste. ah ma ne à ñu def ay poste. poste mooy lan. pasu fay pasu euh, nga dugal benn tweet mhm. kan mooy lire tweet bi ka am Twitter sénégalais yi Facebook am nañ ko am nañ TikTok am nañ WhatsApp ni ci am Twitter dañ leen di hmm. bu ñu doon xool ñi am euh, ci réseaux sociaux yi ñi ci connecté ci Twitter dafa mel ni ñiy connecté Twitter wala LinkedIn mooy peut-être des professionnels wala des gens yoo xamee ni am na seen benn bu jàng fu mu àgg parce que ña ngay ña ngay fekk ci biir yooyu les yooyu les euh, Twitter wala LinkedIn wala yu ni mel euh, c'est plus euh, entre guillemets ay nit ñoo xëy ne am na fu ñu nekk wala ay intellectuel wala ay jàng ñoo xamante ni jàng wala yooyu yu mais la majorité de Sénégalais la ñuy xool TikTok bi la xool wala ñu xool Instagram wala Snapchat Snapchat ñiy xool TikTok Instagram Snapchat ak Facebook ak WhatsApp xam nga lu ñu gis. Alamine hmm. Senghor mi nga xam ne ñoo màggandoo foowandoo fubalandoo euh, jàngandoo jàngam sooxe mu bàyyi jàng moom moo dugg ci gaal àgg na Espagne ma ngay photo di vidéo di wane la mu sol jaarale ko ci TikTok ci Instagram wala ci Snapchat yoo xam ne ñun Sénégalais yu bari moom la ñuy donc mu ngi ñuy woon benn visage boo xam ne moo gën visage bi ñu nekk ñun maak moom ñu xëyandoo jàngandoo defandoo lépp mu dem moom tekki ca lañ ma jàpp wala la ma won tekki na mu ngi ci benn immeuble bu rafet mu ngi dawal benn oto bu rafet donte mën naa am sax oto bi moom ko dañ ko ko abal juste pour mu vidéo boppam mu ngi jàll ci benn tali boo xamee ni tali set na rafet na la mu sol baax na et ñu ne kii tekki na et pourtant Demba Ndiaye ñoo ñoo nekkoon noonu ñoo reerandoon y a une semaine peut-être ñoo nekkoon noonu mu dem matul sax une semaine ñu ne la euh, day jaar léegi day dawal mm-hmm. camion. ñu ngi koy fay salaire boo xamee ni man leer na ma ni en tant que fonctionnaire sax amu ko ma ngay am nangam ma ngay am nangam mais loolu la benn Sénégalais di gis ne ni mais kii ni mu mën def ba tekki mais wërsëgam la man tamit mais bàyyi ma dem dàq sama wërsëg. dàq sama wërsëg may lan. Mm-hmm. bu dee dama war a dugg ci gaal gi naa dajale lu mu mën a am dugg ci gaal jàpp ni gaal gi am na benn bu dem ñamu ña demoon teer nañu àgg nañu téye nañ leen ñaari fan ci kaso waaye bàyyi leen leen ñu ngi ñu ngi dox seeni soxla ci biir dëkk ba ca Espagne wala ca Italie wala feneen fu mën a doon donte c'est pas vrai mais c'est l'information qu'on nous donne ou intoxication en tout cas moom la ñuy la ñuy ñu ne diw dem na Nicaragua ñaata j'ai vu par ñu muy dendal ñuy wane TikTok ku dem jaar Nicaragua ma nga États-Unis ne leen ku leen wax ne Nicaragua yoon bi dafa metti bu leen ko gëm nangam nangam yoon bi mm-hmm. amul problème maa ngi nii diggu xolu nangam ca États-Unis maa ngi dëkk nangam ca Californie wala ca New York wala ca feneen mm-hmm. gis ngeen ma nii kan moo leen ne nii fii dafa am problème mais benn sénégalais bu mel ni man am ay jafe-jafe ci biir dëkkam dana ne mais bon autant ma tamit jéem man tamit tenter sama chance ndax kii xam naa ko ëppale xel ëppale wu ma parce que loolu tamit mu ngi ci biir xelu nit ñi lu mu takk takk mën naa ko takk lu mu sangoo mën naa ko sangoo na mu def ba àgg man tamit naam lay def ba àgg nga gis kenn ku dem gis keneen ku dem lan moo leen di indi yóbbu ñu nekk foofu ñoo leen bokk na ci ña nekk foofu ñu leen di woo woo bi de manière indirecte ci li may wax léegi ci seen i post ak euh, yenn vidéo yi ñuy wane am ñoo xamee ni nag dañuy jàpp ni je vais à l'aventure quelle que soit la situation parce que euh, yenn saay ñu naan lan lañ wax barça wala barsax ñu ne dañuy dem Barcelone waa Espagne waa walla ca Europe wala ñu faatul parce que benn moment sax dañuy jàpp ni faatu bi sax moo gën a sedd ci ñoom ça veut dire que c'est pas une tentative une une des pensées suicidaires mais soriwu ko c'est-à-dire aujourd'hui euh, roulette russe la xam luy roulette russe mooy pistolet yooyu ñu wooyee revolver am ay barilé nga xamee ni kii bi dafay tourné fa ngay dugal bal yi day tourné mu dugal ci benn bal kese ne ni dinaa tiire bu dee dama tombe ci bal bi ñàkk naa bopp dee naa su ma tombewul ci bal bi dem naa roulette russe y a des gens qui jouent à la roulette russe en se disant soit je meurs ou bien je passe maintenant nag est-ce que l'État du Sénégal a une responsabilité oui entièrement est-ce que les mamans ont une responsabilité oui entièrement les pères de famille ont une responsabilité oui entièrement ñun médias am nañ ci responsabilité 500 pour cent keneen ak keneen am na ci responsabilité léegi ñooñu ñëpp nag ngay woo toog nga ne leen toog situation bi nii la nañ waxante dëgg dëgg bi mooy lan kay dem lan dafay defi am na ñoo xam ne bu ñuy dem ci ay tool lañ leen di jël ñuy liggéey am ñoo xëy ne dañuy nekk ay éboueur nekk ci tali yi di bale tali yi di tuur mbali li dañuy def fii ci UCG mm-hmm. di ci doon ay jàmbaar di ci tedd di ci am seen dépense nga gis koo xamee ni nee na fii du ko fi def waaye mën na ko def bitim réew nga gis koo xam ne dañ koy jox tool fii mu ne du ma bay fii tool waaye bu demee ñu jox ko benn pàcc lañ koy jox benn waar lañ koy jox ci tool ne ko bayal tomate ba salade ba euh, orange wala ñu dugal la ci ay vigneron fi ngay defaree raisin pour ñu mën cee defar ay vin mm-hmm. waaye ba léegi da nga naan ni la ma cay am ci benn waar bu ndaw bi biñ ma jox matul sax 100 mètres carré man moo ma ëppal euh, benn hectare bi mu am fii ci Sénégal parce que hectare bi am suuf si baaxul wala même bu suuf si baax na sànq yaa ci tubaab aw ma jiwu bu ma koy jiwoo wala su ma ko jiwee ba pare aw ma sax tracteur bu ma ko mën a euh, li ma li ma ci mën a am ci wàllu ko dund mënu ma ko ci am euh, avant immigration clandestine di am dafa amoon beneen immigration bu ñu woowee exode rural mm. nga gis ku jóge ci àllam fële ca Diofior même pas àllam ci dëkkam ca Diofior jóge foofu ne ni xaaral ma ñëw dakaar la nga bàyyi Diofior am nga fa suuf am nga fa peut-être géej am nga fa gaal boo mën a amee ay ay yoxos ak ay sox soxoor ak yooyu nga bàyyi fa loolu ñëw Dakar jël benn boutique mbagg yore ngay jaay ay caleçon ak ay t-shirt ci mbedd mi yenn saa ñu ñëw ramasse la yenn saa ñu ne la waroo fi jaar wala ngay jaay ay muusu ndox wala raisin période raisin am nga téye sa ñaari mhm. popu euh, potu raisin wala sa papu raisin di ko jaay ci mbedd mi alors que bu doon dañ la jàppale ca fa di nga ci am loo xamee ni ba waxuma di nga di nga fay sax ka lay jaayee raisin ci dakaar wala koy jaayee nga euh, table euh, bëtiku mbagg wala table ci biir Dakar mais c'est tout simplement parce que yaakaar moo amatul ci yenn kiy dem c'est parce que amatul yaakaar ci réewam. Hmm. peut-être au plan économique au plan social. ba pare gis na koo xamee ni dem na këram mu ngi commencé di ko tabax yow fi nga nekk moomoo ko danga nga fi nga nekk. Hmm. ñu loué la ko fin de mois jot. ñu yónnee la huissier parce que ñaari weer a ngi nii fayoo sa location moom mu doon luwee comme yow wala fa muy loué sax tax ko demee noonu dem na waaye ne woo na la sax wala mu vidéo la ne la jënd naa terrain fee ca Bambilor wala jënd naa terrain fële sa nangam nga ne mais kii naa def comme moom il y a beaucoup beaucoup beaucoup de questions autour de cette problématique de l'immigration clandestine mm-hmm. mais malheureusement on a l'impression que les réponses ñi war a jóge fi ñu war a jóge ak muy lan gouvernement comme je, je le dis je le répète mooy la ñu war a def taluñu ko la ñu waroon tal ça c'est un drame combien de gens sont morts ci li nga xam ne moom mooy immigration clandestine ñu ne la gaal gi jógee Thiaroye quatre-vingts personnes nañu ci woon ñu fa ndax dina teer xamuñu ndax ñi ci nekkoon dee nañu ñu ne la plus de cinquante pour cent sont des femmes ak condition wu géej nu mu mel ñu ne la géej gi yëngu na euh, météo boo ko xoolee ñu ne la Euh, la mer est euh, peut-être agitée à très agitée ñu ne nag période bii ngay mën a dem jaare ko ci gaal ci gaal lu ko mooy bu ñu demee ba jeexal mois de d'octobre dugg novembre jëm décembre euh, géej gi dafay sedd dafay yëngu boo demee ba ci biir day xaw a compliqué léegi ngay mën a dem ñu bari di dem gaal yi ñu yoroon gaal yi di ay pêcheurs bàyyi nañu pêche bi parce que dem nañ ba géej gi amatuñu lu ñuy lu ñuy mhm. napp ci géej gi ils préfèrent prendre leur pirogue am ci ay nit ku nekk ñëw joxe ñu ne la quatre-vingts personnes ñoo ci dugg fay la calcul quatre-vingts personne ku nekk joxe trois cent mille nga fay tuuti ki nga xamee ne moom mooy rabatteur bi ki ñëw yebal yebal leen ci yow nga fay ki moom pirogue bi nga fay pour jënd essence la ci des nga xool leen ciy jënd ndox boo xam ne du leen doy pour peut-être cinq jours lay yem te xamoo sax ndax di def cinq jours wala doo def dix jours wala doo def un peu plus pour mën a àgg fi nga jëm yore sa benn compas wala xawma lan lañ koy waaye GPS jàpp ni yoon bii ngay jaar yàgg naa ci géej ñooy dugg sax la leen di njëkk wax mooy ni man dem naa dellu si passeur bi loolu la leen njëkk wax kii yóbbu naa téeméeri nit dem nañu ña nga fële diw xoola ci la bokk diw ci la bokk diw ci la bokk nga xam diw xàmmee diw donc euh, trouver des solutions c'est d'abord dire la vérité aux Sénégalais. ci ci solution yooyu Ibrahima maa ngi wax sànq lu jëm ci wàllum visa yi peut-être bu ñu ko yombaloon euh, jeunes yi pour ñu am ko parce que souvent da ngay dégg ñu naan Sénégal pour am fi visa yombul peut-être bokk na ci li nga xam bu ñu ko defoon peut-être dina am lu mu wàññi ci mbir mi. am na ñu doon am visa. Hmm. am na ñuy am visa ba tey. Hmm. am na ñoo xam ne dañ jaar ci yoon dem ñu jox leen visa je connais des gens yoo xam ne bu ñu amee seen green card États-Unis ça ça fait longtemps. peut-être ñu ngi fa dëkk nañ fa dëkk ñu ngay tabax seeni kër dakaar tabax nañu ba. li wut beneen kër. am na ñoo xam ni da jaay ay oto États-Unis lañ la am na ñoo xam ne ñu ngi Europe ça fait belle lurette fa lañu seeni nañ fa. mais visa moo leen ko may. mais peut-être que difficulté yi ñu amoon wala facilité yi ñu amoon yooyu jamono. ak léegi benn mhm. léegi est-ce que gouvernement mën naa soññ euh, beneen état partenaire ne ko par force dama bëgg chaque année. nga jël 5000 jeunes wala 5000 demandeurs de visa nga may leen visa ñoom ñoo xam seen i quota ba pare tey Europe dafa am par exemple bu dee Europe difficulté wu Europe mooy dañu toll ci jamono joo xam ni c'est chacun pour soi Dieu pour tous. Mm-hmm. chacun pour soi bi mooy Europe dañoo ñëw def benn benn carcan dugg seen benn cocon ñoom ne léegi ñun ñii ñoo yem suñu biir seen biir ñuy xuloo parce que Allemagne nee na man awma problème ak migrant na migrant yi ñëw. France ne ko non non c'est pas possible ñoo bokk Schengen waaye léew li nga bëgg man bëgguma ko Italie ne ko man dama sonn ci migrants yi parce que man sama bopp samay doom ñu juddoo fii yaroo fii màggee fii am seeni ancêtre fii la ñu mënoon a am ci ay liggéey sax amatuñu ko ndax migrants yi nangu nañu loolu Espagne dañu dem ba indi fa benn racisme boo xamee ni peut-être il fut un temps amul woon tout simplement parce que ñun ñi migrants yi et des sénégalais surtout des des des noirs ni ñu ko mën a waxee ñu ngi dem ba di leen sonal ci fu ñu dëkk waxuma sax Europe mais ba ci suñu réew euh, yu Afrique yi Tunisie lan mooy indi benn genre racisme bu mu am ak yenn nit ñu ñuul ñi parce que dañoo jàpp ni ñoom seen réew fi ñu toll nii nit ñu ñuul ñi ñu ngi koy bëgg moom Maroc sénégalais yi am na dëkk yoo xam ne boo fa demee nga dem Casa ca marché Médina la boo ñëwee làkkal wolof jaru ngeen làkk tubaab jaru ngeen làkk naar di nga dégg ku la wax ak yow parce que bari nañ fa ñoo xam ne ils sont régulièrement établis ñu ngi def seen liggéey ñu ñu ko mënee mais bu ñu demee ba bëri nag ñoom seen bopp ñoom sénégalais ñoo naan mais doy na nag yi ñëw fii yàqal parce que tout simplement la waroon a am ñun doot am parce que léegi après ñun donte on vivait en paix en harmonie ñu ngi commencé sonal parce que suñu yeneen mbokk sénégalais ñoom ñoo ñëw fees fi peut-être di def loo xam ne warul defuwul donc c'est une situation boo xam ne comme je le disais tout à l'heure il faut tous les acteurs mën a toog waxtaan ci peut-être njiitu réew mi woote ko na muy wootee dialogue national dialogue politique pour Karim dugg wala xalifa dugg wala diw bañ a bokk wala nangam mais na ko woote pour réew mi mën a am benn jàmm tuuti si suñu doomu réew yoo xam ne ñu ngi dugg ci ay gaal ñii ngi dugg Nicaragua demal États-Unis des gens sont rapatriés mais presque au quotidien wala par ay vol charter ci yeneen i réew yu ci mel ni réewum Sénégal ña fa duggoon mm-hmm. jëkkati seen 3 millions 500 4 millions dépensé ba 5 millions pour dem ñu pertaat lépp parce que mm-hmm. lan dugalaat nañ leen ci avion ne leen ñibbi leen seen réew mm-hmm. parce que ñun suñ bopp lañ doyoon lan moo waraloon administration Trump ñëw taxawal benn mur ne ne nañ tabax mur diggante Mexique Mexique ak euh, États-Unis parce que boobu ñoom émigré bi amoon ci Amérique du Sud di yéeg euh, États-Unis sonaloon na leen léegi bu ci mhm. boolee nag ay africains yu ci yokk mais tey administration bi fa nekk bu Biden mhm. daanaka deful lu lu yées wala lu lu lu lu gën lu administration Trump defoon ci wàllu gestion mhm. immigration euh, bu ñu woowee irrégulière ba léegi ñëppay tëj seeni frontières nee ni ñun la ñu defaral suñu bopp lu ñu moom pourquoi pas essayer de de de de maintenir les Sénégalais. Hmm. fi ñu ne mais avant nga leen di maintenir c' est un problème très profond mais nañu maintenir ñi nga xam ne ñoom ñooy jógee ci zone rurale ba exode rural bu ñu xusoon ba wàññi ko lu bëri bëri bëri bëri bëri. Hmm. exode rural boobu bu boobaa di nga am benn mécanisme boo mu a wàññee tamit. beneen exode bi hmm. wala beneen immigration bi nga xam ni mooy jóge fii dem ndax kiy jóge ci dëkkam ñëw fii ci dakaar parce que dafa jàpp ne dakaar moo gën dëkkam. ki jóge dakaar jéem a dem Lisbonne wala Nicaragua dafa jàpp ne foofu moo gën dëkkam. nañu seet lu ñu mën a waxee ak nit ñi mais nañu toog waxtaanee ko du ay toog di di ci ay politique nañu toog waxtaanee ko. d'accord ba beneen point bi Lamine Senghor mu jëm ci wàllum politique bi Birahima euh, wax léegi ak tournée yi nga xam ne yéen ci suñu leader politique yi ñu ngi koy amal jamono ji waaw moom la ñuy daal di wax ci li nga xam moom mooy yéenekaay yu bari tey jëlee euh, le Dakarois moom dafa xam ne Amadou Ba moom ci boppam jamono jëlee. mu ngay daal di dem di waxtaan ak diisoog askan ba foofee ca bët gànnaaru réew mi waaye jamono jooju ci boppam am na yeneen yoo xamante ne tegu na ci kaw ndoddam yoo xamante jamono ji bokk na ci li nga xamante ne moom moo jëm eh, ci wàllum eh, njëg bu cher bi nga xamante ne nemmeeku nañu ko ci wàllum courant naka loo ne ci ndox ak yeneen yoo xamante ne jamono ji la bokk na ci eh, li jàkkarloog moom maanaam loole la jàpp ne moom mooy candidat bi war a jàkkarloog Amadou Ba ci atum 2024 jamono jooju nag jàpp leen ne ñu ngay daal di xañ ñenn ñi ci fare ci war kujje gi rawatina seen i toog yëpp nemmeeku as bi ñuy def ci wàllum askan wi Khalifa Ababacar Sall foofee ca Fimela lañ ko daal di bloqué. Hmm. Euh, ki lay di Malick Gakou naka noonu tamit comme nañ ko defoon Bougane Gueye Dany yéen kaay yu bëri wax ci la tribune jàpp ne euh, fa mu nekk nii am na euh, ab kumba am ndey ak kumba amul ndey deux poids deux mesures comme ni ñu koy waxee Birahim fii une semaine. arrêté woon nga déjà ci situation bi ni mel maanaam li ñu li nga xamante moom la ñuy taxawoo ñenn ñi ci wàllu dox tukkum nemmeeku bu ñuy def ci wàllu politique ñi faree ci boor bi ak ñi faree ci boor bi la euh, man li may bañ mooy ñu ne ma Amadou Ba tournée économique la nag tournée économique da ngay yem ci tournée économique mais tournée politique lay def tournée politique ak propos politique ak rassemblement politique bi mu demee Dagana lan la doon wax la gestion de notre pays ne laisse aucune place à l'apprentissage je suis le candidat de la transformation structurelle candidat bay wax du ba mu demee Dagana ko ko accueillir ay Omar Sarr ak euh, euh, le le président de l'Assemblée nationale <laughs> mm-hmm. Amadou Mame Diop ku ci nekk wane sa doole ne ni am naa ay nit mm-hmm. dangay ñëw nga sa dëkk ñëw nga sa dëkk pancarte yi ñuy wane ci tournée économique boobu ñuy wax yépp amu ci benn bu ñu bind merci pour euh, l'aéroport de ceci wala merci pour nangam lañ ciy bind Dagana mobilise derrière Omar Sarr mobilise derrière Amadou Mame Diop derrière Amadou Ba diw derrière diw ay slogan politique nga ci gis donc ñu bàyyi ko mu dem amul problème c'est premier ministre double casquette la yore ne na grave premier ministre waa léegi yeneen ministres yi ñu jël Abdou Karim Sall mu jël euh, comment il s'appelle encore euh, Abdou Karim Fofana euh, Aïssata Tall Sall ba ci mon mon frère la moom Lamine Massali ak ñeneen ak ñeneen ku ci nekk di wane ni j'ai tant de personnes j'ai mobilisé tant de personnes am naa nangam ci wàllug ay parrainage lépp pour joxo suñu candidat muy mhm. candidat Amadou Ba ku ci nekk ba ngay mobiliser toogoo sa kër nga génn mhm. ànd ak sa délégation ànd ak say nit def sa cortège dem ca stade Amadou Barry bu Guédiawaye dem ca stade bële dem ci beneen stade ca Pikine plutôt je veux dire au lieu de dem ca Pikine dem ca feneen ak feneen yow mobiliser ay nit def say caravane ba ñëw àgg sa point de chute ñëw mobiliser fekk ñu defal la mobilisation ña doon dem di ci mobilisation ña dem ci stade ba doxantu doxantu dem ci stade ba. dañoo mobiliser dugg ay njaganjaay ay car rapide ay bus ak yeneen yeneen pour dem ci biir stade bi est-ce leen tere ñu am aadu ci stade bi est-ce que dañu tere Amadou euh, euh, nu ñu ko weeti euh, Abdou Karim naa mu dem mobiliser non Aïssata Tall Sall dañ ko tere mu mobiliser déedéet est-ce que tere. Euh, ku mel ni euh, moom Lamine Massale mobiliser ay nit wane mm-hmm. ni am na doole ak feneen ak feneen bii mooy bi gën a récent mais il y a quelques jours ay nit dem nañu euh, Sidiki Kaba wane na boppam ca fa mu dëkk mm-hmm. Doura Baldé wane na boppam fa mu dëkk terewuñu leen mobilisation au mm-hmm. même moment on di non xalifa Sall donte cinq auto six ñoo ànd ak yow mais war leen dem war leen def seen cortège au nom de quoi et kan moo koy tere la même administration bi bi bi nga xam ne ñoom ñooy sécuriser ñeneen ñi mm. yóbbu leen ay gendarme yóbbu leen ay policier ne leen gérer leen euh, seen sécurité ah bu kenn rax bu ñu leen rax nañu gérer seen nañu def seen mobilisation ba heure jeexal bu jeexee ku nekk ñi ñibbi mais sécuriser leen même administration boobu moo naan gendarme ak policier diw bu mu fi diw bu mu jàll diw bu mu jàll ce deux poids deux mesures boobu mm-hmm. am na sénégalais yoo xam ne ko ci mel ni man du ma ko mënu ma ko mënu tout simplement parce que dama naan mais ku ma am ndey ku ma amul ndey moom feneen lan ngeen di def yéen ñëpp lan ngeen di wuti baatu askan wi kan mooy joxe askan wi moom mooy joxe sama carte électeur c'est pas parce que da ñëw mobiliser que dama jox sama carte électeur non damay seet ki ma neex man ma jox ko sama carte électeur ne ni diw laay voté nga mobiliser wala nga bañ a mobiliser je peut-être voter pour koo xam ne kenn xam ko mais le secret du vote permettre moom mu mën ko wax. Mm-hmm. je vais voter pour koo xam ni peut-être mobiliser bi ñuy def nii mobiliser mu ñëw taxaw ku ne defu ko je vais voter pour quelqu'un qui va me montrer un programme boo xamee ni yenu na maanaa parce que ay programme moom ku nekk di nga indi sa programme mais mm-hmm. programme bu yenu maanaa wax ma lan la nan la ko mën a articuler nan la ko mën a defee ak ban temps la may may wala laa koy may man en tant que citoyen pour mu dérouler programme bi pour man ma mën cee gis sa bopp man je vais pour ça mais que pour cette personne mais que l'administration dise que Alamine a droit mais Thiala n'a pas le droit man loolu laa d'accord administration ba pare yow nga war a organiser ay élections du ministère de l'intérieur man je pense que il faut nécessairement que ku ci nekk nga mën may chance ñëpp ñu mën def la ñu war a def sénégalais yi nag voté leen mais dafa am benn point boo xamee ni sans manquer ci tubaab c'est important ñu xool ko mooy tous les acteurs politiques war nañu soññ pour am benn waxtaan boo xam ne mu ngi jëm ci lii di parrainage parce que parrainage dafa dugg ci suñu euh, campagne électorale dugg ci suñu wàlluk élection nekk ci suñu code électoral mais dafa am loo xam dafa ëmb parrainage loo xam ne génnewuñu ko mooy bu dee jamono am woon parrainage dañ doon wax ni campagne électorale diir cent temps lay doon bésub sàngam lay commencé jeex bésub nàngam bu jeexee nag euh, li nga xam ne moom mooy euh, ci jamono benn fan boobu kenn amul droit dem ci télé kenn amul droit battre campagne kenn amul droit def nangam ak nangam ñu ne avant campagne boobu am na pré campagne boo xam ne dañ naan amu leen sañ-sañ def lii ak lii ndax pré campagne la kenn amul droit def nangam. Mm. ñu ne xam ne loolu administration da koy appliqué bu ne ni lii la code électoral wax période bii la ñu nekk di pré campagne amu leen droit def nangam mm. képp kuy def manifestation wala caravane ñu dakkal la koo mën a doon nga bokk ci nguur. wala nga bokk ci opposition on est d'accord mais pour loolu faw ñu toog waxtaanee seen biir ne ni parrainage am na lan mooy xalaatu ma jël fiche jox la ci direction générale des élections loolu mooy top départ mën nga tàmbali wuti say parrain mhm. mais looy wutee parrain dangay ngay toog sa kër wala nga da ngay yebal ay nit ñoo xam ne jilus inconnu ne leen ay mandataire lañu wala mhm. ay euh, points focaux lañu pour ñoo ñu wut parrainage ci biir dëkk bi pas forcément man man la ñu xam soxla may yónni Alamine pour dem wuti parrainage mais même su may yónni Alamine naa dem ànd ak Alamine Thiès wala ma dem Kébémer ca Cala ne ko Alamine Cala denk naa la Alamine moom moo may lijjanti mbirum parrainage ci dëkk bi hmm. taalaat sama oto dëkk ànd ak keneen yóbbu ko feneen ne ko hmm. mooy sama coordonnateur moom laa wax mu gérer ma parrainage ci dëkk bi hmm. taalaat sama oto bi parce que man la ñu xam ba nga xamee ne yow Cala boo bëggee pare Birahim da nga naan Alamine la ma yabaloon dinaa dem ci Alamine képp ku ma xam ne ko demal ci Alamine moom moo yore parrainage bu Birahim Touré. Mm-hmm. mais nga ñëw ne ni Birahim amoo sañ-sañu génn amoo sañ-sañu def dara au même moment nga wax keneen ne ko yow Amadou ba nga sant. Euh, mm-hmm. yow yaay njiitu réew xaw ma njiitu gouvernement bi euh, mais donte. Euh, politique moo la tax a jóg garaaw yow defal la neex mm-hmm. il faut nécessairement ko ñu waxtaanee loolu ci biir benn kuréel goo xamee ne ñi nekkoon ci euh, wàllug waxtaan ca palais de la république ba dem ba ci parrainage am ay commission yu ñu taxaw les commission politique war nañ dellu si ci waxtaan ci ba nga xamee ni les règles du jeu dañ koy fixer e ce sera valable pour tout le monde mm-hmm. muy ki nekk au pouvoir wala ki wut pouvoir ñëpp yem sur le même pied d'égalité mm-hmm. ba nga xamee ni peut-être chacun pourra au moins faire son son sa politique mm-hmm. ou ses caravanes ou ses tournées politico-économiques sans que problème la la ñu mën a jàpp Birahim ci ci tournée bi mooy campagne déguisée bi nga xam ñu ngi koy wax euh, fan yi yëpp je pense que avant sax ñuy euh, reconduiraat le premier ministre Amadou Ba ci ci euh, post bi mu nekk ñu bari ñu ngi ko doon kaas d'ailleurs démb ki nga xam moo di Aminata Touré doon na janoo ak taskatu xibaar doon na ci dikkaat comme quoi que campagne déguisée la nekk di def actuellement Aminata Touré mhm. Malick Gakou Khalifa Sall mhm. même la société civile la presse ku boo xoolee xam nga looy gisuma man tournée économique point non tournée économique bi peut-être cinq pour cent la ci tournée hmm. ci la ma gis man ci la ma constaté journaux yëpp constaté ko 95 pour cent bi tournée politique la ndax amul journal bu la ne ni le premier ministre ba mu demee fii nangam la fa teg comme infrastructure hmm. wala lu néew la ñuy wax ci infrastructure yi mu fa teg hmm. xaalis bu ñu ci dugal ak yu ni mel jël contrat de dem yemale ko ci loolu de journaux yëpp xam nañu lay bindal diw moo ko teeru diw moo wax dëgg fa ne yàlla xoolal léegi. regardez les pancartes. da ngay xool pancarte bi kese. Cheikh Cissé di li nga di ah, wàllu avec. Cheikh Cissé qui est peu le leader foofu ci euh, lu jëm ci Dagana mu am ay nit. ñii nii wax dëgg. Moussa Sow Kogère. Kogère euh, Kogère <laughs> lan la politique la wala gouvernement la non c'est juste une question. Ah ah. question la Richard Toll bi mu dem docteur Amadou Mame Diop avec Amadou Ba. président de l'Assemblée nationale euh, diw euh, bienvenue euh, soyons sérieux ça euh, ni ñu arrêté euh, ñoom Malick Gakou mhm. mais nañ ko arrêté cortège am mhm. ne ko premier ministre mhm. ba ñuy yabal da ngay yónnee ne ni di nga ànd ak tant de ministres yem nañ ci ministre yooyu ñii di def ay mais li ñuy def nii yëpp ana ci économie ci fii ana ci économie je pose juste la question ana économie ci mbir c'est pour cent politique dama mhm. waxoon 94 pour cent politique c'est 100 pour cent politique oui mais digg na mhm. digg na Saint-Louis par exemple ay euh, chambre de stockage yoo xamante dañ fa def ay produits aussi euh, des infrastructures yoo xamante ne on va euh, commencer les travaux est-ce que aussi loolu da nga baax cest dire li nga wax yow yow sa bopp sax tu sais que gëmoo ko <laughs> mais bon ah, est-ce que tu retiens non est-ce que moi waaw non posons si tu ouvrais un peu le téléphone. par exemple les Sénégalais qu'est-ce que vous retenez de la tournée de Amadou Ba. Mhm. au plan économique ca fa mu demoon. Mhm. rares suron xanaa ñoom ñu yebal seen i nit ne leen woote leen gaaw rapidement balaa ñu kii waaye rares seront les Sénégalais qui te diront que au plan économique léegi léegi léegi lii. Mhm. laa ci jëlee ci tournée bi wala laa ci xam ci tournée bi xam nga lu lay wax. diw mobilisé na diw mobilisé na. du mobiliser na c'est pas une mobilisation pour une tournée économique c'est une pour une tournée politico-économique mm -hmm. c'est-à-dire da ngay mbubboo mbirum économie maay premier ministre maa la hmm. mbubboo la mais la ca biir mooy politique la il faut hmm. que nga wane ni d'abord fa fépp fu muy dem tous les responsables politiques locaux yu Benno Bokk Yaakaar dañu ñëw àndandoo joxante loxo pour wane ni monsieur le hmm. premier ministre monsieur notre candidat on est ensemble vers une élection Euh, xuloo woon nañu waaye lay juboo nañu. Hmm. Cheikh c'est il n'est même pas politique mais c'est quelqu'un qui sur le plan social lu nekk def na ko ci dëkkam ca Dagana ca Richard Toll am na ay jamono sax nit ñu ne ko non léegi da ngay ah Omar mi ëppale wu la dara jël jëlal euh, nga nga yëngatu pour jël mairie bi te bu ko defoon peut-être que mu am mu am ci dara parce que sur le plan social la mu def ci dëkkam. Hmm. bari na. mais dafa wane ni man jiituwuma bàyyi leen parce que xaritu président la mais maa ngi liggéey la ma war a liggéey Omar Sarr suñu frère la bàyyi ñu jàppale Omar Sarr ci wàllu woowu. Mm-hmm. ñu ne la non foofu euh, Amadou Mame Diop tamit fa la bokk kooku bi muy ñëw c'est pas le président de l'Assemblée nationale moom moo ñëw. c'est le leader politique Amadou Mame Diop nga xamee ni mm-hmm. fa mu nekk daanaka lépp daf ko mës a gagné ci Richard Toll ne ni ah je vais venir pour wane wan ni boo tëddee nelawul fii mokk na rumbux Mm. c'est ça leur leur propos premier ministre notre candidat boo tëddee fii moom na sa xel dal fii mokk na Dagana yaa ko moom qu'est-ce qu'on leur premier ministre ñun waxuñu sax ndax di nga gagné mais coow li mooy na ngay gagné ndax du ëpp torop mais na sa xel dal loolu ana tournée économique foofu et au même moment tu dis à xalifa euh, Ababacar Sall non moom mënoo jàll mënoo romb sa cortège bi da ngeen xaw bari tey defu leen autorisation dañ la naan d'accord ci code électoral amul fenn fu ñu bind ni am nañu droit wu def boobu di tourné mooy li may wax na ni deux poids deux mesures c'est vrai amuñu droit wu def tourné c'est vrai mais na nga koy nangulee na nga koy bañalee diw. mais bañal ko ñëpp en même temps. bien sûr euh, dafa am benn ponk boo xamante ne Birame je voulais vraiment ñu ñu wax ci euh, ñu ngi wax ci tournée économique euh, wala tournée politique pour certains tey jii je pense que bii du nekk gulet ñu koy wax parce que bu ñu xoolee récemment avec le conseil des ministres bi nga xamante ne def nañ ko tournée bii du nekk mujjanteelu tournée bi nga xamante ne Amadou mu ngi ko war a du pays. Mhm. et au delà de ça les moyens de l'État yi nga xamante ne mu ngi koy utiliser à des fins politiques boo ko fàttale ko avant même ñu distinguer Amadou Ba wala bi ñu ko jàppee ne moom mooy candidat coalition Benno Bokk Yaakaar waxoon nañu ne il fallait impérativement ku ñu tekki ndombal tànkam bi mu yor ci wàllum premier ministre pour ne pour faire en tout cas le distinguo entre lu jëm ci wàllu politique ak lu jëm ci wàllum gouvernance bu Sénégal. alors euh, damay jël benn benn fait bu ci am. Mhm. buy firndeel ni. moyen état moom yooyu utiliser hmm. même sur le plan sécuritaire on a révélé dans la presse euh, même dans les réseaux sociaux xeex bu amoon diggante sécurité Amadou Ba nga xam ni GIGN ñoo ko yar ak sécurité wu ministre de la santé nga xam ni BIP moo ko yar hmm. BIP GIGN yëpp ce sont des moyens de l'État GIGN c'est la gendarmerie BIP c'est la police ma leen di nuyu waa GIGN di nuyu waa waa BIP ce sont d'excellents travailleurs mais dañ leen di yabal rek nee na leen sécuriser boo amee xëccoo bu am na mu am ñu ne deux coups de feu qui ont été tirés en l'air moyen de l'état la ka dem mais est-ce que euh, Khalifa Babacar Sall BIP moo koy yóbbu wala GIGN non au contraire gendarmerie ak police ñoo koy arrêté ne doo romb doo romb parce que li tax du ñoom gendarme yi wala policiers yi non parce que préfet nee na wala sous-préfet nee na wala gouverneur nee na amoo sañ-sañ def nangam damay wax fii la dernière fois benn waxtaan bu mu waxtaan ak kenn ku jege Anta Babacar Ngom ñu dem cees bëgg a dem Mbour def seen tournée politique ci affaire parce que foog ni ñi xam ko ak yu mel noonu euh, comme ki may wax xam nañ ko ñu woo ko téléphone ne ko ah da koy dakkal boo ko dakkalul euh, dañ lay avertir rek mais kon day ñëw arrêté leen donc avertir nañ ko mu ne ah comme je suis républicain te bëgguma yenn situation yi nañu arrêté woo Anta ne ko bon nañu arrêté nañ toog suñu kër euh, peut-être recevoir ñaari nit wala ñett seet ñu mën a recevoir nit ñi pour wax la ni ñu ngi fii euh, jéem waxtaan ak nit ñi ak yooyu ma mhm. ça veut dire que on nous a même pas permis de faire ou de dérouler notre même pas campagne mais notre procession pour dem pour nit ñi xam ñu mhm. pour ñu mun leen wax ne ni bureau parrainage bi fii lañ toll donc ce sont les moyens de l'État qui sont utilisés par le Premier ministre Amadou qui est Premier ministre mais qui est candidat à la présidentielle candidat à la candidature pour 2024 est-ce que mën ngaa dissocier le Premier ministre ak le candidat non non dans son discours discours Premier ministre la lay jox mais ña ko jege ñeer discours candidat bi la ñuy wax te neew leen noppi leen non non c'est le Premier ministre qui est là fa muy dem ñëwul ne leen non non wàcc leen pancarte yi parce que du candidat bee ñëw premier ministre moo ñëw non non au contraire dafa bëgg gis pancarte yi ana ànd ak diw ana mhm. ana diw ñu mu ñu mu indaale il faut que mu xool ne ni léegi nag sama directoire campagne bu ñu demee ba campagne su ma waree ñëw Dagana je sais que je pourrais compter sur Omar Sarr je pourrais compter sur Charles Cissé je pourrais les tous derrière Fally Seck pour élire Amadou Ba élire premier ministre premier ministre wala candidat ah il faut ak soo bëggoon naa ñu ñëw ci Walf Quotidien Birahim mi ngi wax ci par ak aide de la presse li ñuy jot moom moo gën a tuuti sax li nga xam ne moom comme amul ndey. comme lépp rek. ñu Walf moom mujjee yóbbu wala ñoom. ñoom tey la ñu yóbbu ñun. leeral le mot d'ordre à la presse may exactement comme Walf lu mu wax ne reçoit moins que des sites web leeral nag fi am fi rajo di station am ay mhm. fréquence ci dëkk bi yëpp yàlla nattoo ma ma jiite ko am fi site internet boo xamee ni mhm. yu bëri moo leen jiitu même au plan audience sit yu bëri ci réewum Sénégal yi ci gën a siiw moo leen gën a siiw. Mhm. gën jiitu leen au plan national comme au plan international. nga am fi télé boo xamee ni je pense que jarul ñu ci wax tout le monde le sait. Mhm. am na place bu mu au plan national comme au plan international ba pare am muy ci Star Time ci canal ci euh, yeneen ni euh, nu ñu koy waxee ci Eutelsat mhm. maanaam ñu nekk ci ay bouquet yu bari nga ñëw jox ñu loo xamee ni benn site internet moo ñu ko ëppalee mënoonu quoi parce que da toog ne ni bon waa noonu c'est que ñii neexuñu ma trop buñ leen jox lu bëri nga ni donc di ba pare boobu ba léegi moi je sais avant lii nii mhm. je pouvais l'avoir régulièrement quand il s'agissait de communiquer ci lan moo tax ñu tëj WhatsApp yeeg tañ la moo tax ñu tëj euh, tëj TikTok bi mhm. le ministre de la communication Moussa Babacar Thiam message laa koy yónnee mu woo ma wala ma woo ko ñu jël ko fii comme de fois au téléphone invité ko fi en direct mu wax ba doyal mais quand il s'agit de ça monsieur le ministre message jot nga ko jot nga appel wuyuwul au delà du ministre dafa am kuréel yoo xam ne dañoo taxaw ne ni ñii dañuy am ñii duñu am boobu les kuréel mm-hmm. il faut que ñu xam ne dans le dans ce métier chacun a des difficultés l'aide à la presse lu ñu woowee aide à la presse c'est pas pour les patrons ñu jël ko mais c'est pour que lorgan ci boppam mu am suñ ko teg ñu mën ko ci jàppale ci wàll woowu xam tax dañoo jël RTS c'est la chaîne nationale télévision nationale ñu ne dañuy def dans le service public nous ce qu'on dans le service public mais ñu ne garaawul amul xolem ñu jël RTS lépp luy amul ministère boo xamee ni doo communiquer ci biir RTS wala nga jox publicité wala mu am financé te pourtant RTS dañ koy subventionné ñaata milliards hmm. amuñu ko ñu ngay tabax kër gu rafet ca booru fa ñu nekkoon. ma mm-hmm. mm-hmm. président ñëpp ak ñooy bu ñu koy inauguré lépp mais ñun amuñu loolu suñu puxus bi ñu yore ne aide à la presse bi ñu fi jox c'est pas pour que euh, borom kër gi kay promoteur bi nga baal ma dàmm. Mm-hmm. jël ko pour takk ci ñeenti jabar juróom jabar non non non c'est pour que les gens qui sont ici d'abord ñu mën même bu dee. ñaat dërëm bu ñu yokk ci seen i salaire parce que mm-hmm. seen salaire peut-être demeewul noonu wala ñu jël ay nit recruter parce que il faut ñu recruter wala ñu ne diw formation des na mm-hmm. bëgg na mën na métier bi mais foofu ñu yokkal ko formation ñu ne léegi ñu wut ay ci xaalis boobu mm-hmm. ñu nañu yóbbu Alamine mu am benn une semaine de formation supplémentaire ci nangam ay géri de plus en plus ñu ngi ci suñu këru liggéeykaay yi ñu ne waat bon euh, euh, gérer yi ñu fi am mhm. euh, muy Biram Xarit Ndaw mhm. wala Khalil Diémé nañu set nu ñu yokkee beneen gérer yi alamin bëgg nañ mu dem def mhm. formation ci wàllu vidéo ci wàllu nan la ñuy defee caméra nan la ñuy filmer ba nga xamee ni au lieu mu nekk reporter point mais dina am dina doon reporter wala journaliste reporter d'image mu mën en même temps jouer double jeu nga xamee ni peut-être du ma soxla ñu beneen caméraman parce que moom dina ko mën a am. Mhm. mais naa jënd caméra jox ko naa jël dara jox ko ak yeneen ak yeneen donc l'aide à la presse. Euh, gis nga deux poids deux mesures bi mu wax sànq ci wàllu administration dafa am malheureusement ci ñun. Euh, est-ce que d'autres sont plus méritants que nous. Mhm. non pas forcément. Walfadjri c'est pas la première fois ñuy casse aide la presse. Mhm. Euh, la preuve regarde ku ci mel ni des médias Bougane. Bougane am na mos na sax delloo seen chèque. ne leen check bi ngeen ma jox ci kër gu toll ni suñu kër gi c'est pas la peine leen seen chèque. Hmm. Euh, ne leen bon finalement bàyyi ma toog euh, jàpp ci yàlla peut-être néew li may am ak sa ma bokk ak sama njaboot. Hmm. exactement ce qu'on hmm. nañ toog jàpp ci yàlla. lu néew lu ñu am ñu bokk suñu njaboot. ce qui était décidé mooy de retourner le chèque à à l'envoyeur. c'est ce qu'on avait décidé de retourner le chèque à l'envoyeur parce que on s'est senti lésé. Euh, FM bi ma jiite la jox say mais ay miette la yëkkati leeral point wax ma miette sax mais tuuti miette moo gën a ndaw. leeral TV n'en parlons même pas. au même moment nga jël suñu ñetti entité nga jël benn site internet boo xam ne mhm. euh, wax dëgg fa nay amul 1000 abonnés wala mhm. ca lay nga jox ko la ëpp ñun ñett nag ñu jox wala fajari kaas ko ñun ñu kaas ko keneen ak keneen kaas ko c'est pas une question de vouloir de l'argent mhm. du tout mais il faut ñu mën a méngaat leen nit ñi ku ci nekk sa la moom lañ la cëral ñu jox la la nga war a am. ñu jox la mhm. bu bañ a am ay euh, wax ci de la presse boobu di nga xamal ne aussi euh, vendredi 27 octobre euh, donc le dimanche 29 octobre ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre ñu fas yéene def li nga xam ne moo di sitting donc Walf ci altine ñu wax ci loolu ak lu jëm ci wàllum aide de la presse bi nga xam ne xam le na ni euh, Walf li ñu jot daanaka moom moo euh, gën a tuuti sax li nga xam ne moom la cité di jot acca Lamine Senghor ñu jeexalee rapidement ak tàggat yaram waaw équipe nationale ndaw yi nga xamante ne ci Sénégal seen at yeegagul fukki at ak juróom-ñaar xam ngeen ne ñu ngi waajal coupe du monde ñu ngi jamono jile foofee ca Turquie di waajal démb am na ñu seen njëkkeelu jongante xarito ngir waajal boobu lépp compétition foofee nag kon ñoo dese woon ci ak Panama daan ko ñeent bal ci ñaar muy lu am solo te euh, daal di joxe nag confiance laata ñuy dugg ci boobu lépp compétition ni ki gaaw bi ñi waxoon nañu ko ci la ñuy daal di dóor njëkkeelu match euh, buy ibbi championnat bu euh, Sénégal tàmbali ko nag ak trophée des champions diggante Guédiawaye Teungueth FC ngeen baal ma ak équipe bu génération foot Teungueth bi daan génération foot daan ko nag ñaari bal ci benn génération foot ñu fàttale moom mooy champion du Sénégal en titre jamono jile kon Teungueth daal di daan ñaari bal ci benn jël nag émission bi mu nekk nag lu am solo loo xamante ne kon ndaw euh, tëngeej ji daal dinañ koy euh, màggal bu euh, baax a baax ci gaaw bi gannaaw loolu tamit wax nañu ci yéenikaay yi ni ki tey ji nag ak beneen yéenikaay jëm nag ci wàllum stade ak record def nañu focus ci gayndew Sénégal yi nekk ca l'Europe jamono jile ci wàllum football gis ngeen ko nag ak ndaw bi le di Lamine Camara nekk nag ndaw foofee ci AFC Metz di jouer milieu de terrain jamono ji mu ngay daal di def ay jéego ni ki démb la dugal digganteem ak Monaco Monaco bu Crépin Diatta ak Ismaïla Jakobs naam ci mujjanteel ba dañoo mujjee nërmeelu ñaari bal ci benn waaye nag def na fa jéego bu am solo ci boobu lépp jongante jamono jii jàppale ne Boulaye Dia naka noonee moom tamit mu ngay def ay jéego boot na club am Salernitana foofee ca Italie moom moo double ni ki démb bi tax nag ñu daal di tembo mu nekk nag loo xamante ne mën naa dal xel laataa ñu yegg ca atum 2023 wala 2024 janvier euh, Coupe d'Afrique bi ñu koy jongante ndaw Sénégal yi jamono ji daal ku nekk daal tànkam yaa ngi mel nii waaw koy. a koy dégg naa leen démb ci guddi yéen ci doon wax. bien sûr waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi waaj ngi bu baax. surtout avec euh, l' équipe du sport Pape Maguette du Doudou. Doudou Mbaye ak euh, ñi muy daal di àndal démb on avait reçu. Euh, mm-hmm. bien sûr Mamadou Diallo coach bi nga xam ne moom moo yor wàllum équipe nationale bu Sénégal beach mm-hmm. soccer. maanaam footballu géej gi eh, ñu ngi doon waajal wax ci wàccaayu coupe du monde bi ñi nga xamante ñu ngi ko war a amal ca émirats arabes unis donc mu nekk lu am solo dalaloon nam tamit eh, Cheikh Issa eh, mi nga xam moom mooy le président de des douzièmes gaynde du Sénégal bien sûr euh, ci euh, jamono yi nga xam ne ñu ngi waajal jongante naka lañ koy waajalee surtout Coupe d'Afrique des Nations quels sont les paramètres yi nga xamante ne ñu ngi koy teg pour gën a mën a teewal Sénégal foofu gën a mën a gunge gaynde yi donc waxtaan nañ ci dem am na solo loo xamante ne waxtaan nañ ci à découvrir incha allah <laughs> ci suñu plateforme euh, émission boobu yëpp mën ngeen ko suivre ci suñu plateforme YouTube Facebook ak TikTok entre autres voilà Baye Maguette ak ganam terrain la doon à de 45 mètres waaw lii maa gis démb. de 45 mètres il a fait un euh, son premier but. Euh, mm-hmm. ci ci suuf en fait ci euh, Ligue 1 français donc c'est mm-hmm. mm-hmm. continue de marcher sur macha allah. doo doo ci jàppandalu <laughs> Guaré xam naa dañu war a tëgal ñu suñu làmb rapidement Senghor. Hmm. xamaat face à face keroog bi ak <laughs> absence su <laughs> Ama Baldé nga xam ne li Nicolas di promoteur bi di exiger ay sanctions. li Nicolas de ci table bi la toog. direct uh-huh. mer bu fut. commencé jël micro bi naan il faut des sanctions bien sûr il faut des uh-huh. sanctions et déjà le président euh, du CNG wax na ci euh, Bira Seck euh, Bira Seck ou Bira Sène qu'il y aura des minimum. le lutteur peut y aller jusqu'à six mois yoo xamante ni dañ koy tere mu takk ngembam donc loolu nekk loo xamante ni lu am solo la mais personnellement man ba léegi xamaguma lan moo tax Ama ñëwul peut-être dinañu wax lu leer euh, ci li tax Ama Baldé mhm. absence am lan moo ko waral teewul ci euh, li nga xam moom mooy euh, maanaam face à face boobu te face à face dafa bokk ci li nga xamante moom mooy le contrat bi nga xam ne dañ koy signé ak promoteur bi Euh, mais en tout cas en ce qui est sûr et certain mooy le combat reste maintenu le 5 novembre Ama Baldé Modou Lô c'est un combat royal Ama nag foog mu bëre fii moom amatul amatul dàq combat ak gis Biraye Modou Lô naan euh, Ama ñëwul mais moom respecté na contrat moo tax mu ñëw peut-être jàpp na ni <laughs> Ama respecté wu contrat en tout cas maa ngi nuyu Modou Lô euh, ci ci cër lu mu ñu cërale <laughs> uh-huh. cëral ma aussi vraiment uh-huh. maa koy nuyu di nuyu aussi Tapha Euh, di nuyu vraiment ñaar ñooñu ci xam naa seen. seen cofeel ci ci ñun. ci man per personnellement. donc euh, amul lu may wax naan damay far ci diw Gris Bordeaux aussi ak waa fas yëpp ñaa ngi di nuyu bu baax a baax fa lay yem. acca maa nuyu Balla Gaye même sama ko nuyu wala nuyoo kenn. maa ngi <laughs> sax kii waa Diouf yor. voilà voilà jërëjëf. merci Birahim ba suba incha sama suñu benn mbokku taalibe boo xam ne euh, moo gañe démb de ca làmb ji daar euh, Darou la démb rek seen seen combat bi nu mu tëddee. walaay dina ah? bëre démb bi waaw ñu koy sargal bu baax. ñu koy dina dellu naa ko. naa ko message Alamine léegi nii. Ah, message ma ko waaye maa ngi xool combat bi sax mais gisatu ma ko maa ngi maa ngi ci bëggoon wax waaye maa la. naa naa ngeen ñu tegal ñu. kenn du moom. Hmm? ah mais damay laaj lu xew ci làmb ji rek gars yi aussi bëgg nañ xam Lamine Senghor. walaay wax nga ah, loolu la rek. te combat bi ñëw na ba pare sax le 5 c'est bientôt. incha allah yàggatul de. yàggatul moom ñaari semaine na ci des. mais ku nekk far ak sa mbër rek yàlla baax na <laughs> te ñaanal ko mu daan acca Birahim ba demain incha allah. incha allah euh, mhm. leen di jox di daje demain incha allah euh, demain le matin mais aussi. Mhm. suivre le soir. Ah candidat euh, mooy mhm. candidat. Mm -hmm. ce sera une surprise ah naa leen wax kan la. Ah, ñun sax xamaguñ <laughs> ñu ngi koy xaar merci à toi ca léegi léegi ñu dugal Fatou ki ci seen rubrique mode astuce et beauté. moo jot gërëm leen sant leen comme ni koy defee saa su ci ànd bi ak euh, programme yu Leral TV ak Leral FM rawatina seen matinal c'est clair koy defee euh, suba su ne ak ñun bu euh, bien sûr sept heures jotee ñu da nga eh, maa tey Kenza d'habitude da nga yegg si rek commencé sourire tey da nga yegg si rek commencé <laughs> <laughs> du du du xam nga Birame wàccati na loolu Birame wàccati na commencé dina. <laughs> ayca ni ñu koy defee suba su ne ànd ak yéen ci njeexintalu émission bi ngir uh, ci li nga xam moo ñeel seen rubrique uh, mode astuce et beauté Fatou Kiné fekk nañu ci uh, plateau bi ñu lay ziar Fatou Kiné. maa ngi lay ziar bu baax ci àlla. naka suba si noo yeewoo sama xuloowaale bi. Mhm. <laughs> yeewu naa si jàmm alhamdulilah naka weekend bi j'espère que ça a été. ça va alhamdulilah ça s'est bien passé. alhamdulilah ziar Birame mi fi jógee. Mhm. ziar téléspectateurs yi mhm. auditeurs yi ak euh, internautes yi. voilà acca mode astuce et beauté lu ñu euh, ma indi tey. <laughs> Uh-huh. donc euh, tey ma indi leen li nga xam ne mooy dress code. mu nekk loo xam ne lu am importance la. Uh-huh. parce que dress code euh, bon mot bi c'est en anglais. mais uh-huh. ci français ñu ngi koy wax code vestimentaire. code vestimentaire nekk loo xamante ni lu ñu war a respecter la. parce que dafay varier selon événement yi selon milieu bi nga xam ne moom ngay dem ak selon les âges aussi. Mm-hmm. donc ku nekk am na nga xamante ne moom nga war solo. donc code vestimentaire bu ñu ko waxee dafa am ci góor am ci jigéen mais tey moom pour bëgg sama xuloowaale kontaan damay commencé ci góor ñi. Mm-hmm. a dem ci bu dee ci góor ñi. Euh, code vestimentaire yi le look casual casual nekk look boo xamante ne c'est très décontracté mooy pantalon kaki yi boole ko ak sa benn t-shirt bu la neexee t-shirt bi tam mën nga ko remplacer ak sa mhm. benn polo def sa ay basket sa ay sneakers donc c'est très simple look la boo xamante ne on l'appelle décontracté mais ça va pas pour autant dire que ni tamit mhm. dangay ngay bàyyeeku de trop donc bu nice wala sa benn pantalon euh, chino nga boole li nga xamante ne mooy t-shirt wala mooy polo. donc bu ñu jógee ci look casual boobu da ngay am look casual smart casual smart ñu ngi koy wax look sport chic. Mm-hmm. donc sport chic nekk look bu nga xamante ni dangay jël casual bi nga teg ci benn blazer donc da ngay def pantalon en kaki en kaki def sa ay mocassin. def sa benn soit nga def chemise nga ubbi deux boutons yi ci kaw wala nga def t-shirt wala nga def tam aussi polo ça dépend ci li nga choisir nga teg sa benn blazer de préférence soo ko mënee tijji nga bañ a teg bouton bi mhm. donc bii tamit look casual la mais boo xam dafa xaw a laal un peu sport mhm. ñu koy wax aussi euh, look sport chic mhm. donc boo jógee ci sport chic bi da ngay jëm ci li nga xam mooy look business look business business boo ko déggee mooy pour liggéeyukaay donc am na business bi nga xamante ne business casual lañ koy wax donc mooy business bi nga xam c'est pas très très formel comme nii par exemple ensemble costume look business la mhm. d'accord mais soo xoolee takkul cravate dafa def benn chemise boo xamante ne dafa tijji de boutons yi donc mhm. boobu c'est pour ay after work ay dîner d'affaires ay voyage d'affaires look boobu pour loolu mhm. la voilà moo nekk nii donc après bi dañuy ñëw ci look business carrément business bi nga xamante ne fi ngay liggéey jee sooy dem bureau moom ngay sol donc da ngay def sa costume mhm. euh, nga def sa benn chemise à l'intérieur mhm. takk sa cravate aussi conseil bi may joxe fii mooy bu dee da nga sol costume boo xam ne c'est uni amul motif amul mhm. dara c'est lisse tu peux te permettre nga takk cravate boo xam dafa am ay motif wala mu am ay rayures ak yooyu noonu mais dès que costume bi nekk costume boo xam dafa am rayure wala mu xaw a am légèrement ay motif tu peux parce que motif ak motif àndul cravate bi bu simple bu nekkee uni mën nga def cravate bu am motif mais cravate bi bu xasee ba am ay motif ay imprimé ay dessin costume bi nga koy boolee dafa war a nekk costume boo xam ne dafa ñëw neutre donc costume bu am motif cravate bu am motif kenn du ko boole àndul toujours benn day am motif benn ñëw nekk uni donc bii nekk look bi nga xam mooy business mhm. chic business classique mhm. donc bu ñu jógee ci look business chic dañuy ñëw ci look bi nga xamante ne mooy look de soirée donc look de soirée mi ngi nii smoking ngay sol donc smoking am na cravate buy ànd ak smoking bu la neexee nga jiital benn gilet ci suuf bu la neexee nga bañ a jiital gilet donc smoking bi moo nekk ni ci kaw revers bu dijji bi nekk en soie wala da nga am impression que ni cravate bi velours la si cravate dafa am imprimé dafa am imprimé mhm. Mhm. soie la en fait soie lay nekk mu am ay dessin am ay motif donc cravate pour smoking pour mhm. soirée aussi dafa am côté chemise euh, am na chemise yoo xamante ne c'est pour tous les jours pour dem liggéeyi am chemise boo xamante ne da nga koy boole ak sa look casual mu nekk chemise d'habitude manche courte lay doon mhm. wala même bu dee manche longue day ñëw rek simple mhm. sinon am na chemise bi nga xamante ne c'est uniquement pour smoking d'habitude soo xoolee chemise bi ñuy jiital a smoking si baat bi nii dina am benn détail buy nekk fii nii am ay rayures wala am ay pli pli donc boobu mooy chemise bi nga xam moom la ñuy jiital ci mhm. smoking donc ma wax leen rek trois styles veste yi nga xam ne moom moo am pour bu ngeen di solo su fekkee c'est le jour pour soo bëggee def benn look boo xam c'est décontracté look casual smoking ngay sol. smoking nekk loo xamante ne mën nga jiital chemise mën nga jiital t-shirt. da nga sonn da nga gëm gëm. non non <laughs> blazer. voilà ba ma ñëw ci loolu. bàyyi ma continuer ah. léegi blazer mu nii. Mhm. blazer yéen ñëpp xàmmee ngeen ko. mooy veste yu simple yi nga xam mhm. day am benn bouton. Ah. nga boole kook sa jean. Mhm. def sa t-shirt bu la neexee à la place de t-shirt nga def polo wala nga def chemise manche courte boo xam da ngay tijji bouton bi. voilà comme ici lii tam blazer la da nga koy sol jiital chemise mais blazer tout le temps tijjil benn bouton ci kaw pour ne pas que sérieux parce que look décontracté look casuel la voilà donc bu ñu jógee ci blazer nga xam moom ngay sol en journée mhm. dañu ñëw ci ensemble costume ensemble costume moo nekk nii amoo droit déparé haut bi ak bas bi toujours ensemble la war a nekk mhm. mu ngi nii nga def sa cravate tëj bouton takk sa cravate donc bii mooy ensemble costume mhm. donc bii mooy deuxième type de veste bi existé troisième type de veste bi existé mooy le smoking mhm. smoking ni ñu koy xàmmeewee mooy toujours dafay am revers en soie bi mooy bii bii mooy smoking moom nañuy soo si dîner de gala yi ci soirée de gala yi mhm. donc smoking de préférence buñ koy sol nœud papillon la war a àndal bu la neexee nga def benn gilet ci suuf bu la neexee comme kii nga ma nga def gilet nga sol ko nii kese def sa benn mouchoir de poche mhm. jël sa nœud papillon en soi nga takk ko donc bii mooy smoking mhm. aussi smoking dafa nekk loo xamante ne amuloo droit sol ko te 19 heures jotul dafa am heure parce que lii pour soirée la tant que guddi mi ngi mel ne nga 17 heures 18 heures nga yow jigéen nga jël benn robe de gala nga sol ko 17 heures 18 heures smoking mooy robe de gala chez les hommes. amoon droit sol côté 19h jotul donc trois types yooyu moo existé am nga blazer pour le jour pour ce look casual ensemble costume pour booy liggéey li nga xam ne pour bu dee voilà loolu laa indiloon góor ñi tey. parce gis ñoo xam dañuy sol ay veste. def journal. Mhm. peut-être dañuy gis rek. Mhm. ni mu toogee. waaw duñ ci bàyyi xel duñ ci bàyyi xel waaw. non man nag je suis mën ci defal yére. je suis defal leen ci tubay. je côté boobu noonu. damay toog waaw kon del topp koo xam day koy topp. mais ak des fois damay toog di seetaan di seetaan avant may may liggée si télé dama daan toog di seetaan ma toog ba si ah, ma ne ay waay. kii kii li mu sol lii pourtant lii ak lii àndul pourtant bu ko boole woon ak lii pourtant mais peut-être que c'est quelque chose boo xam ne hmm. man j'ai eu la chance de formation bi xam nan lan nañ ko war a assortir hmm. xam nga mais bu dee ku ko xamul ndeysaan na rafet rek hmm. moom na solo mu rafet rek waaw moo tax nag góor ñi tey moom jox naa leen conseil boobu am na veste boo xam boo ko fi sol kenn solati bëccëg am veste boo xam boo ko fi mi ngi noonu joxe nga conseil ni waaye su dee da nga mel ne Lamine wax naa la ko keroog vest bi na nekk coupe slim fit moom slim fit la wala war a sol pourtant je lui ai dit l'autre jour non slim fit la dernière fois mooy jour bu nga jour bi nga absenté bi bi muy présenté émission bi mais veste slim fit la sol mais ça sa lui va trop bien da ko jàpp pourtant wax naa ko ko nee naa ko lii mooy sa style del sol veste yoo xam ne slim la aywaay bàyyi li ngay wax dégg naa a jaar dama a insister rek waaye dégg naa la. wax li nga wax rek jeexal waa jeex na conseil conseil yaa ngi noonu. voilà ñu ngi a baax. moom mooy tooñ. man waxuma moom moo la tooñ. yàlla baax na. tey moom yow moom yaa ko tooñ. xam naa tey bu ma génnee dugg ñu am ana sa ana sa xuloo waaye moom ay tooñ. tey moom yaa ko tooñ. merci beaucoup euh, Fatou Kiné ñu ngi lay xanaa balaa ñuy jeexal Lamine looy ree yaa ñu réeré bi nga xam ne waa F24 eh, génne génne nañu ko donc ngir eh, àddu ci eh, situation politique bi jamono ji ni nga xam moom la tëddee ak coow leeg jàpp baay ñoom nag xel ñaar la ñu ci am ak droit yi nga xam dañu jàpp nag dañu koy salfaañe jamono ji ak tout ce qui se tax ba ñu am interrogation boo xam ne def nañu ko par rapport ak élection tànneefu njiitu réew yi nga xam nañu dëgg ma na mu ko amal ci atum 2024 te le ministre de l' intérieur actuellement à xam nañu ko mu di Bios sur euh, maître Sidiki Kaba ñu euh, tabb ko ci récemment Lamine Senghor euh, donc comme que Birahim wàcc na rapidement rek Lamine Senghor je pense que laaj naa ko fi laajaat ko fi avec tout ce qui se passe actuellement est-ce que mën nañu am yaakaar am ay élections yu apaisées bon c' est une mm-hmm. question boo xamante ne pour nga répondre ko dina xaw a jafe mais en tout cas c' est le souhait de tout un Sénégalais. Mm-hmm. ñoo am élection yoo xamante mm-hmm. élection libre et transparente. et je rappelle encore une fois euh, le président Macky Sall ci ndaje organisation des Nations Unies foofee ca New York il avait pris l' devant le monde entier que ne moi en tant que président sortant boo xamante ne man maa jël décision ne du ma bokk ci joŋante ne territoire atum 2024. je prends l' de faire des élections libres et transparentes mhm. des élections démocratiques donc loolu nekk engagement bu fort boo xamante ne mhm. jël na ko te tey jii je ne vois pas encore une fois lu war a a tax ba du ñu am élection nga baal ma élection libre et transparente mm. mais il faut signaler une chose pour des élections libres et transparentes mm. je pense que tout un Sénégalais war na ci sentir imprégné imprégné pourquoi parce que euh, tey jii je pense que euh, ku nekk peut-être am na choix ci kandida mm. bi nga xamante ne moom la yaakaar ne buñ ko dénkee réew mi kon peut-être mën na yóbbu réew mi fi nga xam moom lañ bëgg dem donc ñu ñàkk xañ kenn mu ñàkk am choix voter benn deuxièmement ci loolu la ñuy daal di woote encore une fois à ce que ñu respecte justement laisser aux ayants droit, c'est-à-dire au Conseil constitutionnel, mu traiter encore une fois sur la question des candidatures multiples, qui sera candidat pour briguer en, en tout cas le suffrage universel mm -hmm. au niveau donc de 2024. et pour ça impérativement donc le conseil constitutionnel moom mi nga xam ne moo nekk ki war joxe dogal maanaam ki war a jël le mot pour dire que diw ak diw ñooy doon candidat et surtout encore une fois par rapport à la situation du leader de PASTEF mhm. Ousmane Sonko mhm. l'ex PASTEF mhm. selon certains il faut ñu jox ko ay de parrainage am comme tous les autres candidats à la candidature pour ñu mën a dagaan i 14 d'accord merci ci euh, détenu yi nga xam ne jamono ji ñu ngi amal xiifal mu di euh, grève de la faim ñu ci ñëwaat euh, certainement ci suñu yeneen jotaayu xibaar ak Fatou ne ñu bàyyi la nga tàggatoo ba demain incha allah. allah donc. ñu leen di seen beneen rubrique mode associé beauté. Uh-huh. merci beaucoup. Ah, ok boo defee weekend show ba pare kay ñëw te alterné moom kontaan mën a def waaye daañu fas a daa soog bàyyi ko rek. waaye démb yaa ngi fi woon. <laughs> weekend weekend man démb maa ngi fi woon mbàkk démb maa ngi fi woon. weekend show nga de ok. li nga weekend show li nga weekend show. samedi ñëwul woon après la ñëw. non bi nga ñibbee laa ñëw. non maa liggéey samedi liggéey dimanche yaa liggéeyu. non gisuma la fi samedi kat ma naan ma yaa liggéeyu toppal be <laughs> du ma ko tontu bàyyi ko Birahim nee na Birahim nee na. Euh, mbër bi mu doon bi mu leen doon wax sànq ne borom euh, nu mu di euh, taalibe Baye Daaru la. Ah. mu ngi dutu ñaa ah. bu ndaw. moom moo am ndam ni ki démb. mu koy daal di jaajëfal bu baax <laughs> waaw félicitation yow tamit allah carrière bu gudd. ñaa bu ndaw incha allah tur bi dafa am bu ndaw j'espère que moom ndawul wala tur bi la. est-ce que amul ñaa bu ndaw question boobu boo paree que amul amul bu tudd ñaa moo tax mu tuddee boppam ñaa bu ndaw après directeur dina tontu ci loolu daf ñu ñaa ndaw léegi après on verra parce que mën na am ndaw xool ndax ndaw la wala voilà ba pare en tout cas lu mu ndaw ah. daw di am na ndam mm, ok ba jàmm <laughs> damay wàcc te tàggoo gu woon merci à vous ñi nga ci soo ba tey yeneen ñuy topp moo xam ci site bi wala ci télé bi mais également ci rajo bi ñu ngeen di jaajëfal bu baax a baax merci également ma bàyyi la ma Fatou moom moo sonal. yow mi yaa lakkale yow yaa bàyyiwul kenn ah kenn yow. Euh, merci beaucoup merci beaucoup à la régie mais également Ami ah. Ami mhm. suñu xarit la dafa am loo xam ñu ngi koy waajal nag fan yi mais mënu ko wax nag. Thierno kenn keroog bàyyi mu nekk surprise ah, ko toog di ko mais am na xam na ñu ngi ci waajtaay gi incha allah dina ñoom Lamine Senghor Fatou a Ndeye Marème ak Fatima Coulibaly yëpp incha allah dinañ nekk ci ci événement boobu jàpp